akasal alwaha mu dal di jël li nga xamee ne moom mooy alawaya ndax yonti yàlla Muusa bi nga xamee ne mer na ak meram googu dafa ñëw fekk alawaya jël ko sànni ko alawa yooyu ci lañ bindoon tawraat bind ci ay waaraateeg yooyu moo tax ñu ne tawraat amutoon loo xam ne dafay daganal ak xaraamal waaye ay waar ak tudd yàlla gërëm yàlla yooyu mu fekk fa alawa rekk jël ko sànni ko tasaare alawaya léegi nag buur subhaanahu wa wax ne walla ma sakkata ba nga xamee ne dal na an Muusa mu ne ci Muusa alxadaba mer wa aqaza mu ne jël na al alwaaha euh, euh, alawaya mu ne wa fi nusxatiha nekk ca nekk na ca mbind ma hudan di njub wa rahmatan nekk yërmande li lazina ñeel ña nga xam ne hum ñoom yarhabuuna mu ne dañuy ragal li rabbihim ñeel borom seen kon yonti yàlla Muusa meram googu mer la ci yàlla ndax dafa am mer yoo xam ne ci bakkan la tege waaye am na mer yoo xam ne ci yàlla subhaanahu wa la mooy lu naqari yàlla ak lu neexut yàlla moo feeñ wala moom lañ gis moo tax mer ñëw kon yonti yàlla Muusa meram wow nekk mer boo xam ne jéggi na dayoo lool ndax Moussa dafa nekkoon koo xam ne ku munoon a mer la nee nañ bu demoon ba mer sax karaw yii dafay dem ba xëtt mbub mi génn nekkoon koo xam ne dafa amoon kàttan am doole moo tax mer toujours bu jot comme ça nekk walli yu wala nekk nit ku baax terewut a mer ñi nag léeg-léeg dañuy gis ne comme ça nit ki su naqaree deret sax dafa bon su jafee dafa bon fekk loolu jotewul dara ak wilaaya waaye jotewul dara ak nekk ba nit ku baax jotewul dara ak yooyu yëpp gis nga yoon yonti yàlla Muusaa ngi nii nabi la nekk mursal waaye nekk itam bokk ci ulul azmi waaye gis nga mer na ba jël alawa yi nga xam ne ñoo def tawraat jël ko sànni ko ba alawa ya damm léegi mer bi wàcc si ñu digal ko ne ko nag demal jëlaat alawa yi ñu ne loolu nag ci aarif billahi bi nga xam ne dafa sóobu ci yoon yàlla mooy ne bi mu demee ba tàbbi ci péeb yàlla bi léegi nag dem na ba wàcc si waat nag dafay dem bu tollee foofu dafay sànni léeg mën na dem sànni julli sànni téere yi sànni yooyu yépp waaye nag bu demee ba mer gi dal nag mooy xaal bi mu nekkoon dal dañ koy wax ne nag demal nag wëññeekuwaat demaat jëlal alal na delluwaat ca jës boom bu bees su ko defee dem récupérer waat sariya ci boppam gannaaw bi nga xamee ne tàbbi na ci péeb yàlla bi léegi nag dafay dem nag récupérer waat yooya mokkaat ci sariya delluwaat nag lam sànni woon yëpp mu jël ko loolu mooy yonti yàlla moo yonti yàlla Muusa sànni li nga xam ne moom mooy alaway kon gis nga mer comme ça téere boobu léegi ma lay wax ne la mooy ibnu ajiba nettali na mu ne saarata moo doon sangi haajara dem na benn bés merloo ko moom saarata merloo haajara ba mu ne ay daw dem yàlla ñu ne ebal benn malaakata téere boobu ma lay wax moom moo nettali lii ma lay wax mooy téere ibnu ajiba boobu mu ne yàlla ebal malaaka ne ko demal nga wax ak sarata mële wax ak haajara mu dem fekk haajara mu ne ko yow foo jëm ak lu xew mu ne ko suma sang bii moo ma merloo dama bugg a gàddaay rek dem mu ne ko haajara mu ne ko ah mu ne yow xanaa xamoo ne yow danga war a jur doom joo xam ne tey ñépp danañ tàllal loxo jëmee ko ci yow moo tax arab di wax ne euh, bi sarafil asli yusrafu al furu mooy ne ci dàtt bi teraanga dana ñëw ñëw ci doom teral li nga xam ne mooy dàtt bi mooy ne sayyidatuna Haajara moom moo nar a jur yontu yàlla Ismaayil te yontu yàlla Ismaayil xam ngeen ne maam la ci yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi kon nit dana teral koo xam ne moom mooy cosaanam mooy ne yonti yàlla muhammad teral na ki nga xam ne mooy cosaanam te mooy yonti yàlla ismail loolu la ko malaaka mi doon junj ne ko demal yow da nga fas yéene jur doom joo xam ne doom ju ñuy teral laay doon doom joo xam ne ñëppay tallal loxo jëm ci moom mooy yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi kon gis nga mer toujours bu jot li ma la bugg a wax rek mooy day gaar nit ñu baax nga ndax xam ngeen ne haajara moo meññi maam jooju nga xam ne mooy ismail waaye yonti yàlla Moussa miñ la wax léegi moom itam gis nga euh, bokk ci ulul azmi te gis nga mer gi mer noonu yëpp kon loolu yëpp di la won ne mer nekkut jotewul dara ak wilaaya jotewul dara ak am maqaam kon gis nga yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn bés benn waaye ñëw na rek ne ko dénk ma mu ne ko laa tax dab mu ne ko dénk ma mu ne ko laa tax dab ba muy ñetti yoon mu ne ba mu ko waxee loolu daal moom mu mel ni daal dafa xeeb li ko yonent yàlla muhammad wax ak li mu ko dénk ne ko laa tax dab bul mer waaye gis nga xadiis boobu boroom xam-xam yi taalif nañ ci lu bëree bari ci ay xam-xam ndaxte mer dafa nekk loo xam ne lu garaaw a garaaw la yonent yàlla Muusa mii ñu la wax rek ca mbokk banu Israël ma ba muy xeex ak xiptima mbéj na ko fa mu dee wala mu kurpeñ ko mu dee ngir mu ne def leen di àtte rek affaire bi far rëcc ko mu rey bakkan te gis nga mu ngi nii yonent la fas yéene doon bokk ci ulul azmi yi kon gis nga yonent wax waa ji ne ko laa tax dab léegi nag ñu nettali ne bañ waxee loolu waa ji jëm këram ñu ne bam jëmee këram dégg fa benn coow ndekete benn mbokkam moom moo fa am problème léegi bi mu amee problème euh, waa ji egsi moom ñëw ba ci benn ngédd rek damm fa aw et wu mag a mag rek diri ko jëm jëm ca gaaña ne sama mbokk mi ñu bëgg a nangam nangam waaye xelam daj li ko yonentu wax ne ko laa tax dab bul mer mu ne hey gis nga de li ma doon yonentu di dénk xaat xaat ñëw na. bul mer a ah, man ma jógee ko fa ñëw dégg problème bii rek damm et xam naa mel ni sekkeen sekkeen yooyu rek ak ca jël et wa commencé dem noonu la tëral et bi kon gis nga hadis bi lim ko dénk commencé na jëriñ noonu la tëral et bi ñoo ne waaw yéen kii lu ngeen joteeg moom ñu ne ko ah, kii de def ñu leb nangam nangam mu ne waaw loolu du problème def leen dànk rek lii jarul xuloo jarul xeex dal leen rek ah gaa yi dal mu ne leen waaw léegi kon fi mu toll nii ñaata la bor bi dox seen diggante ñaata la ñu ne ko nàngam la mu ne dinaa ko fay gaa ñi ne ko waaye ñun nag doo ñu gën a gore doo ñu gën a kii fi mu toll nii loolu teg ko nële gis nga ko problème ba yépp jeex na gis nga kon njëriñ li ci saa si rek yontu lim ko dénk fii mu koy xeeb ci saa si gis nga lim mujj jur ndax bu demoon jël et booba dóor ko kenn foofa mu xaañ wala mu dee keneen def noonu keneen def noonu ay bakkan yu bëri dinañ fa rot gis nga kon mera ngi noonu yonti yàlla Moussa kontine mu ne mu wax ne waxtaara mu daldi tànn Moussa Moussa xawmahu mu ne ci aw nitam sabiina rajulan mu ne juróom-ñaar fukki góor yonti yàlla Moussa nag yàlla wax yu ko gànnaaw bi nga xamee ne fekk na loolu problème boobu mbokkam yi def léegi mu ne leen yàlla daf ma digal nag ma tànn juróom-ñaar fukk ci euh, yéen banu Israël léegi mu commencé tànn te xam nga waxoon dañ la ca gànnaaw ne la euh, banu Israël ba nga xamee te dina ko wax ci ci kanam ba nga xamee ne ñu ca teewu ba mar yàlla daf ko ne dóoral sa et bi ci doj bi su doj bi tojee rek dana éclater def ay fukki sewnde ak ñaar loolu li muy firndeel mooy ne fukki giir lañ woon ak ñaar léegi xam nga fukki giir ak ñaar boo ci tànnee ku nekk juróom benn su ko defee monsieur Ndiaye kon 6 boo ko multiplier par 12 waaw 68 waaw kay su ko defee muy 72 yow intellectuel nga <laughs> mental calcul mental gis nga ko su ko defee noonu kon xam nga dafay doon 72 te moom yàlla lim ko tànn loo mooy 70 léegi nag il faut ñaar danañ toog ndaxte yonent yàlla Moussa moom digal lay toog léegi nag mu wax gaa yi ne leen il faut ñaar dinañ toog ñu commencé man de duma toog ku nekk ne man duma toog te léegi tam nga xool mu jàngal la loolu itam lu bëree bëri mooy saa yu bëgg-bëgg yi dajee doon benn yow bu ñëpp kii yow débrassé wul gis nga noonu la def comme sa taalibeem bi ñuy wax kaalib ak ki ñuy wax yuusa ñoom ñaar ñooñu ay xale lañ woon yonent yàlla Moussa tànnaale woon na leen ñoom ñu ne gannaaw mbir mi demee ne noonu nañ bàyyi ñun nañ toog fekk yontu yàlla Moussa def leen ne kan mooy toog yàlla defal la payak ñi nga xam ne dem nañ ñépp bañ waaye Kaalib ak Yuusa mi ñoom ñu d'accord ne ñun d'accord nañ loolu ñun danañ toog gis nga moo taxit nag lan lañ ci jëlee mooy bi yontu yàlla Moussa génnee àdduna ñoom ñaar ñoo ñoom ñoo ko doon ñoo doon ma xamay yontu yàlla Moussa boobu kon gis nga loolu lim lay jàngal mooy saa yu nit ñi dajee ci bëgg-bëgg ñépp teg ci loxo yow fexeel ànd ak yàlla ànd ak dal teey ànd ak tekk ak teey lépp yàlla dana ko tegaat sa loxo gis nga kon moo tax ñoom noonu noonu bam leen ko digalee rek ñoom yontu yàlla Muusa ba ko yàlla digalee loolu rek su ko defee mu tànn juróom-ñaar fukk yooyu dem ak ñoom moo tax ñu ne ñoom ñaar ñooñu deñ gaa gaaw a jaaw mooy li alquran wax rek yow ma yejj al wildaanu siiba bés bi nga xamee ne xale yi dañuy béjjaaw ñu ne loolu mooy lan mooy xale yi fa ñuy jëfee jëfi mag kon ñoom ñooñu dañoo gaaw a béjjaaw léegi mu ne waxtaara mu tànn Muusa Muusa xawmahu nitam mu ne sabiina rajulan mu ne juróom-ñaar fukki euh, góor mu ne li muy xaati naa ñeel suñ mii xama fa lama axasathum rajfatu ba nga xamee ne euh, alkande ga walla li nga xam ne mooy mbugal ma jàpp na leen mu ne xaala mu dal di wax moom yonti yàlla Muusa rabbi yow borom sama law siita boo sooboon ahlaktahum mu ne nga dal di leen alak min xablu mu ne bu njëkk mu ne wa yaaya ak man mii li ko indi mooy ne yonti yàlla Muusa ba mu àndeek ñoom ñu dem ca mii xama léegi nag yonti yàlla Muusa mu ngi wax ak boromam bi muy wax ak boromam nag ñoom ñu ngi koy dégg léegi ci biir wax ak boromam boobu ñoom ñu sàkku nag ne nañ gis yàlla jahratan léegi nag loola nag moo nekk problème ndax gis yàlla googu ñu sàkku ñoom lu tax mu nekk problème ñu ne ñoom sàkkuwuñ ko ci xememteef waaye dañ ko sàkku ci sabotage rek ñu ne loolaa tax nag yàlla indi Euh, kii boo xam ne rey leen foofa ñoom ñëpp rey si ñoom lim bu bëree bëri yonti yàlla Moussa nag moom xamut ni mbir mi demee moom nag loolu laay wax nag moo tax mu ne xaala mu wax moom Moussa rabbi yow borom sama law siit te bu la sooboon ahlaktahum nga alag leen men xablu bu njëkk mooy bañ jógee koo fële pa kay pour ñëw tuub si ngir bakkaar bañ defoon noonu ci jaamu yëkk wa bu la sooboon rek kay nga alag leen foofa même man mii sax nga alagaale leen nga ma ci biir léegi nekk ne moom xew bakkaar bi xew ci biir moom euh, yëgut ko woon gis nga loolu la wax ne mu ne a tuhliku naa ndax daf ñuy alak bi ma faala lam def a sufaawu mu ne way desee min naa ci ñun lañ def ca jaamu yëkk wa mu ne in mu ne nekkut loola nekkut illaa fitnatuka lu moy sa fitna mooy nattu gooñu nattu rek te dulli yow da nga sànq bi haa ci moom manta saaw ku la soob mu ne wa tahdi te da jubal manta saa ku la soob ante yow waliyu naa yow yaay yooyu méngoo suñu faxfir lanaa yal na nga ñu jéggal warham naa yal na nga ñu yërëm wa anta yow xayrul xayrul na yaay gën ji jéggal ji waktub mu ne waaye na nga waral lanaa ñeel ñu fi haasi duniya ci bile aduna hasanatan mu ne yiiw wa fil axirati mu ne waaye ci àllaaxira eh, inna ak ci àllaaxira itam mu ne inna hudna ñun dey tuub nañ ilayka mu ne jëm ci yow xaala mu dal di wax moom borom bi azaabi su mbugal suma aussi bu danaa ko jotal bihi ci moom man asaaw mu ne ku ma soob waaw léegi mu ne inna hudna ñun tuub nañ am na ñu wax ci borom xam-xam yi ne yahud seen tur fii la bàyyeekoo ñoom bannu Israël li yonent yàlla Moussa ne ñun inna hudna ñun dey tuub nañ mu ngi jógee ci haada mu ne euh, hud naa tuub nañ ñu ne foofu lay yahud yi jëlee seen tur boobu ñuy wax yahud huud ñii ne déedéet euh, fi mu jógee ko mooy yontu yàlla euh, ba dafa amoon fukki doom ak ñaar léegi nag am na ci ku ñuy wax yahuza ñii ne moo doon mag mi ñii ne déedéet laawi moo doon mag mi waaye ak lu mënti doon rek yahuza moomu dañ koy wax ci zaal waaye dañ koy wax ci daal mooy ne yahuda ñii ne yahuza ñii ne déedéet foofa la yahud bàyyeekoo ba tey ñu leen di wax comme ni nga xamee ne banu israil mu ngi bàyyeekoo ci ne moom yonti yàlla yanquba moom moo doon israil waaw israil day firi comme ça jaamab yàlla léegi nag foofu la israil bàyyeekoo waaye yahud itam ñii ne fii la bàyyeekoo bi yonent yàlla Moussa ne inna hudna yahud yi jëli loolu ne ñun ñooy hud ñun ñooy ñi nga xam ne ñooy tuub ñii ne déedéet mu nga bàyyeekoo ci Yahuza ca doomu Yanqub boobu kon su ko defee buur continuer di wax ba léegi ne wa rahmati waaye suma yërmande wasiat mu ne yaa na kulla shay'in mu ne dajal lépp man suma yërmande dajal na lépp mu ne fa sa aktubuha danaa ko bind lillazina ñeel ña nga xam ne yattaquuna ñoom ñoo ragal yàlla ñu ne subhaanahu wa taala ba waxee loolu ne su ma yërmaane nag daj na kàpp lépp luy sëy rek daj na la te sëy u rek mooy lépp lu dul yàlla rek loolu sëy u la <coughs> léegi nag ñu ne seytaane porox ndollu foofu di ut occasion ne ah waaye gannaaw yàlla wax na kay ne euh, su ma yërmaande yaa na daal dajal lépp ah kon kay man danaa ci am yërmaane borom bi subhaanahu wa taala continuer ne fa sa aktubuha danaa ko bind li lazina ñaal ña nga xam ne yattaquuna danañ ragal yàlla ah kon moom ragalut yàlla de ndax su ragaloon yàlla yàlla dana ko digal ne ko su juutalal aadama mu bañ ni ko noonu du def loolu kon moom génn na mu ne wayu tuuna zakat ñu ne ba mu waxee fa euh, sa aktubuha danaa ko bind lazina yattaquuna ñi nga xam ne ñooy ragal yàlla yahud yi ñoom itam buuree fële ne ah ñun kay ñun itam ragal nañ yàlla ñoom it bugg a def occasion pour dugal seen bopp foofu buur subhaanahu wa taala di wax wa na ñuy joxe azakaata mu ne asaka wallazina ak ñaaña nga xam ne hum ñoom bi ayatina ci kaawteef suñu yuminuuna la ñuy gëm allazina ñaaña nga xam ne yattabi'una ñoom ñoo topp ar rasulu nabiyil ummi ki nga xam ne mooy yonent ak nabiyi ummi muy yonent bi nga xam ne inalphabète la mooy ne moom jàngu dara gis nga foofa la taqalee saytaaneeg yahuut ak nasaraan ak ñépp ñu génn xeeti yonent yàlla muhammad rek dal di des ñoom ñépp mu génne leen moo tax loolu lim lay jàngal mooy am na wax yoo xam ne duñ ko tënk moo tax dafa am alquran lim ñuy jàngal soo gisee mu def suratu baqara mu gudd bañ koy ooyee ne mbër njaay mooy dafa am problème yu fa yàlla réglé yoo xam ne su nekkutoon loolu ni konoon du mën a nekk ñépp xam nañ ne comme sa atte sariya yi gën a bëri yàlla nga ko def ci saar yu mag yi ndax am na foo xam ne ci jataay soo fa naree gàttal da nga indi lënt-lënt waaye am na foo xam ne laajut gàttal moo tax gis nga lu mel ni wal asri inna lisaan la ataynaaka al kawsara fa salli rabbika wanhar inna saaneka huwal abtar ci saa si jeex na ñetti aaya rek mu wax ci li li nga xam ne la bëgg a wax lu mel ni inna ataynaaka al kawsar xaw ma inna al xam ne saar boo xam ne làmboo na lu rëy rëy rëy yu bari yum fa wax waaye gis nga daf ko tënk rek mbëmbëstan ko kon gis nga loolu la jàngal ne am na wax foo xam ne da koy tënk mu gàtt waaye am na foo xam ne il faut danga guddal moo tax yàlla subhaanahu wa taala fii bu waxoon rek ne wa rahmati wasiat kulli in rek gaa yi danañ porox ndoll waaye moom hakim la dana fexe ba génnee leen kon gis nga noonu la ñuy nettali ne benn boroom xam-xam xamatuma ndax imaam Malik la wala Abu Hanifa ñooy dafa mos nekk ci benn jataay benn waay bu mën a fen nekk foofa commencé di wax rek di jóor naan Abu Hanifa wala diw sàngam borom xam-xam diw sàngam nee na nangam moo wax nangam comme ci misaal rek naan ussa Samba moo wax nangam Oustaz sàngam moo wax fekk ussa Samba moom mu ngi toog muy wax rek naan Oustaz Samba wax Oustaz Samba wax Oustaz Samba ngi toog di ko déglu rek ba mu paree Oustaz Samba ne ko ah sëñ bi li nga wax nii danga nga juum de mu ne ah nu ma juumee. mu ne ko man maay oustaz Samba te li nga wax ni man waxuma ko mu ne ko ah mu ne ko ah. mu ne yow rek yaa fi oustaz Samba <laughs> mu ne ko déedéet <laughs> man di nekkuma oustaz Samba de gis nga waa ji moom itam foccateku ci affaire bi ba dënca complètement moo tax ñu ne narkat danga koy peeg ba nga xam ne soo paree rek danga koy tënk ba du am fum mu futtandeku deful rek danga dem ba affaire bi ne nii mu fittandeku génn ca mbir ma bam mu set wecc su ko defee yow affaire bi du la enragé gis nga yàlla nag noonu la jëflante ak seytaane ak yahuut ak nasaraan seppi leen bañ set wecc won leen ne lii ma leen di wax nag bokku leen ci de xeeti yonent yàlla Muhammad ñoom moom loolu léegi mu daldi di mu ne wala ziina ak ñaaña nga xam ne yulhiduuna mu ne dañuy jengal Hmm? yajiduunahu allazina ña nga xam ne yajiduunahu dañ koy fekk maktuban mu ne ñu bind ko indahum ca ñoom fi tawraati mu ne ci tawraat wal injil mu ne ak injil mooy ba tey mu ngi melal yonentu boobu rek ne yonentu boobu nga xam ne ummi la nekk inalphabète nekk koo xam ne jàngu dara boroom riyaad riyaad tafsir ne loolu suñ ko waxee xaste la ci mbooleem koo xam ne ku mooy yonent yàlla Muhammad rek loolu xaste nga mooy nit ki suñ ko wax ne yow euh, inalphabète nga jàngoo dara xamoo dara rek xaste la ci yow ba mu des nag yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom suñ ko waxee loolu tagg la ci moom ndax koo xam ne dañ la ne yow jàngoo dara mosoo jàng mosoo bind te tey mbooleem fóode yi kàngam yow yaa wax lu leen lottal kon yow loolu tagg la ci yow loolu nag mu ngi diri sembaanam ci aarifuuna billaahi ñi nga xam ne tey dañuy géeju ci mbiram sariya dañuy géeju ci mbiram xaqiqa te jànguñ aanibee tey lu nekk rek mën nañ la ko waxal mën nañ la ko tojal ba mu jeex takk te ñu ngi nii jànguñ dara moo tax kon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom itam noonu la yàlla daf ko tëbb mbooleem xam-xam yi mu fees dell ak xam-xam te jàngu dara xam ne arab li ñuy mën a mën a mën a wax xam ne tey soo demee seen so enraw yi so enraw yi lu nekk lañuy ñuy fente ci ay mbiri euh, kéemtaan daal ci wax waaye gis nga ba alquran ñëwee booba la leen jommal moo tax mu wax ne allazi ka nga xam ne mooy yonentu yàlla muhammad yajidunahu dañ koy fekk maktuban mu ne ñu bind ko indahum fa ñoom fi tawraat mu ne ci tawraat wal injiil mu ne ak injiil kon gis nga téere yii yépp ñoom ñoo ëppoon alquran mooy dañ wax ne boroom Ismaïl Haqi borom ruuxul bayaan albaruusi dafa wax mu ne euh, tawraat mu ne junney saar la woon waaye saar bi ci gën a gàtt mel ni comme alquran inna ataynaaka alkawsar wala wal asri mu ne saar bi ci gën a gàtt ni baqara la tolloo kon xam nga ni kon li ëppee alquran bëri na waaye ñu ne ñeenti nit ñoo ko mokkaloon ci jamono yonent yàlla Muusa ñu ne ñetti nit ak Muusa yonent yàlla Muusa waaye ñu ne ba tey itam mu wax ne mu ne injiil téeméeri saar la woon ak juróom fukk kon xam nga téere yooyu yëpp ñoom ñoo ëppoon alquran waaye alquran fexe na ba mbëmbëstan mbooleem la nekkoon ca téere yooyu mu mbëmbëstan ko bal ñu ne faatiya sax ci boppam li nekk ci alquran yëpp mbëmbëstalaat nañ ko foofu kon gis nga lim lay jàngal mooy ne yàlla nu ko neex rek lay defee li ñuy wax idgham comme saa jël mbir yi di ko taxañ di ko taxañaat loolu lañuy tubaab di jàngal ba léegi ne tey xoolal ordinateur amoon na jamono ponkali kii la doon doon ba tey nga gis ordinateur portable ba nga xam ne danga koy mën a gàddu ci sa loxo nii rek loolu yëpp di la jàngal tënk gi nga xam ne moom la subhaanahu wa di jàngale mu kontine wax ne ah, yamuruhum mu leen di digal bil maaruf yi mu ne ci njekk muy lu baax wa yanhaahum mu ne mu dig mu tere leen anil munkari mu ne ci luñ sib mooy lu bon wa yahilu lahum mu daldi leen daganal attayibaati mu ne way teeyi wa yahrumu alayhim muy haraamal ci ñoom alxabaisa mu ne meddi ak yu mel ni yooyu wa yadaa mu daldi di sippi anhum ci ñoom israhum mu ne seen ak diis mu ne wal axlaal ak li nga xamee ne ay taral la yooyu yépp mu daldi leen ko seppi allati ya nga xam ne kaanat nekk na alayhim ci ñoom mooy yonti yàlla muhammad dafa indi alquran ñëw fekk diina yahud ak nasaraan am ay teengal yoo xam ne comme tey yahud yi xam ne soo amoon ci jamono yonti yàlla Moussa soo amoon sobe mu nekk ci sa malaan ni koy def rek mooy dagg ko munoo ko fóot dagg rek moom mooy doon kii ba boo xamee fa mu nekk daal da koy dagg rek affaire ba dóor a bu nekkee ñu ne sa yaram la kii danga koy xeet même bu dee ne daay nàcc sax xam nga ne loolu lu diis la de bàkkaar boo ko defee bugg a jéggalu da ngay dem ca yónentab jamono ba mooy dem ci yónent yàlla Moussa ne ko ah man de damaa bàkkaaroon mu am droit moom jàkkaarloog borom bi tuubal la mu ne suñ amoon problème itam gis nga dégg nga yu bëree bëri yow Moussa waxal ñu sa borom nangam waxal ñu ñoom amuñ droit wax xeeti ti yàlla Muhammad na xoolal fépp foo defee bàkkaar <coughs> boo jàkkaarloo borom bi rek ñaan mu jéggal la fépp fu la sobee dalee comme ni ko lax dari waxee soo xamee fa mu nekk demal rek nga raxas ko mu set jeex na soo xamul fa mu nekk fóotal mbubb ma yépp rek mu daj gis nga soo buggee ñaan fu la neex taxawal dem ñaan lu mooy place yi nga xam ne dañ koy tere rek soo buggee julli itam ju'ilat lii al ardu masjidan loolu la yonent sallallahu alayhi wa wax ne suuf si defal nañ ma ko muy jàkk lu mooy place yi nga xam ne dañ ko teree julli fa mooy place yi sobe yi yu mel ni place yi pasa place yu demee noonu xam ne dañ fa tere comme ça euh, kii lu mooy loolu rek yow am nga droit jàkkarlook sa borom ñaan kon nag mu ne moom indil na leen loo xam ne daf leen di teggil diis diis yooyu moo tax mu ne fallazina ña nga xam ne amanu mu ne gëm nañ bihi ci moom yontu yàlla muhammad wa azaruhu mu ne ñu dal di ko wekk wa nasaruhu ñu dal di ko dimbale wa tabao ñu dal di topp annuur allazi mu ne leer ga nga xam ne unzila maahu ñu wàccee ko ci moom te mooy alquran wulaay ko ñooñu le humul muflihuuna ñoom ñooy ñi texe kon ñooñu ñi nga xam ne mellal na leen ñuy sahaaba yi xam ne ñoom ñoo jàppoon yontu yàlla muhammad jàpp ko wek koo dimbale ko muy ansaar ak muhaajiri yépp xam ne dimbale nañ yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mu ne ñu weg ko yonti sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi dañ ko wegoon weg ko ba nga xam ne benn waay moom mooy nettali mu ne sahla mooy nettali mu ne ba mu fekkee yonti sallallahu alayhi wa sallam ci sahaabaam ya mu ne ha yéen su yeboo ngeen noppaleku yéen waa màkk kii ma gis nii gars yi duñ leen ko jébbal mukk la àdduna koo xam ne bu taxawee di wax gaa yaa ngay yaan seen bopp yi di jooy ah ñuy ming fii di jooy mu ne kii bu leen kii ne danañ leen ko jébbal de ndax yonent sallallahu alayhi wasallam noonu la tolloon moo tax moom saxlu moomu moom moo nettali mu ne su fekkee ne comme ça xaaxtandiku def na ko rek balaa mooy rot ci suuf gaa yi jël ko këf ko raayoo waaye loolu nag ci xaqam rek moom la yey moom yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaaxtandi ku mu ne fi ko defoon rek balaa muy rot ci suuf gaa yi jël ko raay ko te gis nga benn waay rek nettali na ne yonti sallallahu alayhi wa sallam euh, kii na taabam ni bënn ko bës ko ba dëtt jigéen mu jox ko ko mu ne bam ko ko joxee ne ko demal nga tuural ma ko demal foo xam ne fu sori la fu kii nga tuural ma ko waa ji moom def yëfi kii rek dem jël kii ba wann ko yonent ñëw ne ko yonent ne ko waaw mbaa kii nga ko fu sori kay mu ne ah, def naa ko ci xur woo xam ne kay mu ne mbaadu da nga ko da lekk yee dang nga ko kii da ko naan mu ne ko waaw naan naa ko de mu ne toskare ñeel na ku la ku la léw ku léew toog yow ëllëg mooy ne loolu dana def dara ci moom ndax lu tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy campement bi nga xam ne xilaafatu osma bi nga xam ne secret bi yàlla bu foor bi ci moom la nekk di daw ci moom kon xam nga ne kooku léppam mooy barke ndax yàllaa ko xool ba ne ko ku la topp topp na ma koo xam ne weddi na la weddi na ma wax ko lu bëree bëri bari muy wane ne comme sa uutu na yàlla ci mbooleem façon kii uuti na ko kon secret boobu moo tax sahabaayam yi dañ ko weeg woon a weg a weeg ba nga xam ne oustaz Baram Diop nettali na ne su leen doon jàngal mu ne dañuy def nii sëgg woof mel ni koo xam ne comme ça dafa ragal picc dafa dal ci boppam mu ragal mu naaw noonu lañuy ñu respecté woon yontu sallallahu alayhi wa sallam kon looloo tax mu ne fallazina ña nga ña ña nga xam ne amanu mu ne gëm nañ bii ci moom yontu yàlla muhammad wa azaruhu mu ne ñu wekk ko wa azaruhu mu ne ñu ko war nañu topp an nuur allazi leer ga nga xam ne unzila maahu wàccee nañ ko ak moom te mooy alquran wulaay ko ñooñu le humul muflihuuna ñooy ñooy ñi texe xul waxal yow yonti yàlla muhammad yaa ayuhannaas ay yéen nit ñi wala ey yéen waa màkka inni naka man rasulullahi yonti yàlla la ilaykum mu ne jëm ci yéen jami an mboolem seen allazina ña nga xam ne lahu ñeel allazi ka nga xam ne lahu ñeel na ko mulku samawaati nguur ak asamaan wala ardi ak suuf laa ilaha mu ne déet buur bu ñu jaamu ci dëgg illaa huwa nderee moom yuh wa yumiitu te dana rey fa aminu na ngeen gëm bihi ci moom wa rasulihi ak yonentam annabiyul ummi mu ne yonent boobu nga xam ne ummi yi la ku jàngut la allazi ka nga xam ne yuminu mu ne dana gëm bihi ci moom wa kalimaatihi mu ne ak baatam ya te mooy alquran wa tabahu ñu topp laallakum wa tabahu ñu dal di ko topp laallakum kon xel na tahtaduuna mu ne ñu dal di jub kon gis nga wax na yonent sallallahu alayhi wa sallam ci ne sahaaba yi nañ ko gëm nañ ko topp mu wax ne wa min qawmi muusaa bokk na ci niti muusaa mu ne ummatan aw xeet mbooloo yahduuna mu ne dañu jubbil xaq mu ne ci dëgg wa bihi mu ne ci moom yaadiluuna mu ne ñuy maandu kon yonent yàlla muusa digal na xeetam mu ne ñu des ci li nga xam ne mooy njub ak maandute euh, borom riyaad tafsir nettali ne axbara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yontu sallallahu alayhi wa sallam nettali na annahu moom marra bihi romb na ci ñoom leelatu usriya bihi bés bañ koo rañaane faraahu mu ne mu gis leen yad fa nuuna yad fa nuuna amwaalahum bayna aydihim mu ne ñuy suul amwaatahum ñuy sul seeni niiw ci seen kanam bay bayna aydihim xaala lahum mu dal dina wax moom yonte yàlla muhammad maa lakum yéen loog yéen tad fa tad fa nuuna mu ne ngeen di rob al waata mu ne woy way deey bayna aydikum mu ne ci seen kanam xaalu ñu dal di wax ne zalika loolu le li naskural mawta ngir ñuy fàttaliku dee lu tax ngeen di rob seen niw yi ci seen kanam mu ne ngir ñu fàttaliku dee mu ne li nazkural mawta ngir ñuy fàttaliku dee daa iman toujours wala nan saahu mu ne duñ ko fàtte kon ñu ñu de bëgg nañ waaru xaala mu dal di wax ne maara aytu gisuma lakum ñeel leen aswaafan mu ne aswaaqan mu ne ay marché xaalu ñu dal di wax ne laysa indana mu ne nekkul ñeel ñu aswaaqan mu ne ay aswaaqun ay marché izzaranaa ndaxte ñun buñ bayee waxasat naa mu ne ñu dal di góob zaranaa Euh, ñu daldi bay kullu naa zaran naa bay na kullu naa képp ku nekk ci ñun yaquzu mu ne dafay jël minu ci moom maa yak fii loo xam ne moo koy soob xuutu sanatihi mu ne dund gam war a dundee ci at ma wal baaqi waaye mu ne la des kullu man araada képp ku soxla rek an yaquza mu jël sey an dara yaquzuhu daf koy jël fastax nii naa mu ne mu dal di ñu doy nag anil aswaaqi mu ne ci marché yi kon gis nga marché yi problème bi mu indi moom la lay wax nii ne la mu ne leen yéen lu tax su ngeen lu tax yéen amu leen marché ñu ne ñun amuñ soxla ci loolu ndaxte ñun daal suñ bayee ku nekk dafay jël li nga bëgg a dundee rek ci sa at su ko defee li des ñu bàyyi ko képp ku soxla rek comme ça tey man bay naa ñebbe kii bay na gerte man bëgg naa gerte ma dem jël ci moom gerte moom mu ñëw jël ci man ñebbe su ko defee mu ne noonu la def aajawut ñuy dem ca marché di taxawal marché kon gis nga marché soo seetloo loolu moo ko indi rek mooy wecc wecc ci lante ay bëgg-bëgg bëgg naa xar kii bëgg na nangam su ko defee ñu dem def weccalante loolu nag ci la nguur dem dugg ba dem sos li nga xam ne mooy monnaie xam ne dafay tënku ci am-am bi tey man su ma soxlaa xar xaalis laay yor génne suma poos dem jënd ko waaye bu njëkk ba na affaire ba doon demee mooy suma soxlaa nangam yow nga soxla nangam damay ñëw jël li ma soxla ci yow yow nga jël li nga soxla ci man kon su ko defee ñu def ko rek comme weccante waaye tey nag ñu dem ba tënku ko def ko ci xaalis tey su ma buggee xar dem ca marché ba xaalis laay génnee rek mu remplacer man la ma bëggoon a yóbbu fekk na moom am na ci soxla kon gis nga su ko defee mu dal wax ne looloo tax ñun soxlawul ñuy am marché xaala mu dal di wax ne maa lii la lam araa tax gisuma lakum ñeel leen mulukan mu ne ay buur xaalu ñu dal di wax ne li ana naa ndaxte ñun li mu yazlimu naa baadan ñun kenn du tooñ ci ñun kenn muy laaj leen moom itam yontu yàlla mu Muhammad laaj leen ne waaw yéen lu waral amu leen buur hmm? Hmm? Hmm? déedéet lii saraa la lii li borom tax amu leen buur ñu ne ko ñun kenn du tooñ ci ñun keneen di loolu tax amuñ buur kon gis nga lim lay rek atte yi li ko fi indi mooy maandute ku nekk di dund ci maandute di dund ci liberte bañ a tooñante bañ a notante loolu moo indi nguur ñëw xam nga tey moo tax tey nguur suñ defee seen liggéey rek askan bi dañuy nekk ci jàmm ak salaam kenn du am problème waaye tey loolu axe bi moo am mooy ne tey boo amee alal doo tëdd nelaw te normalement loolu moo waroon am mooy boo amee alal da nga waroon gën a tëdd nelaw waaye tey yow mi bëri la alal yow doo tal sax nelaw fi nga koy xamee rek boo demee mbokk sëñ bi soo demee tey ci àll bi ñu nga def foofu seeni baas def seen kii seen alal yi seen bët yi doo nelaw da ngay toog nii di ko suivre foo am gétt ci àll bi da ngay toog nii di ko suivre def fa néeg di fa fanaan di ko xool soo ko def loolu yëpp li ko def mooy ne lim wax nii rek ne leen lu tax amu leen buur mu ne ko ñun kenn du tooñ ci ñun moo tax amuñ buur kon su fekkee ne comme ça maanute am na kenn du dem di kalaame wante ci nguur ba ñuy am lu ñuy àtteeg nangam nangam waaye gis nga doom aadama ak morom ka il faut loolu dina am seen diggante ndaxte kat tooñ ak ñàkk tooñ ci si la boo xam ne yàlla xotti na ko il faut am ñu ko sol mooy ne il faut am ñoo xam ne danañ def ay crime loolu moom du mën a ñàkk tey saaba yi ñoo gën ñépp te yontu sallallahu alayhi wa atte na ci jamonoom di dund atteeg njaalo mooy ñu jam nit ki nga xam ni kon loolu ñu te ko def ci jamonoom mu ngi dund te gis nga kon loolu yëpp lim lay woon mooy ne rëy maqaama walla foor maqaama terewut comme saa yooyu yëpp nekk gàllankoor ci yow mooy yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lim amoon ngëneel yar saaba yi terewut saaba yi ñu ngi doon def ay comme ça ay problème waaye nag loolu firiwut seen ak ñàkk kii ndaxte ñoom comme saa li ñu wax ñoom ñooy judduwaayu masala yi ndax tey am na loo xam ne su ko ak saaba defutoon kon nag duñ xam masala boobu suñ fa tollee naka lañu koy war a def waaye masala bu war a am rek am na loo xam ne génnee na ko ba nga xam ne tey sariya bu ñëwee dina am fu mu wéeru atte ko kon su ko defee loolu la nguur di jëriñ pour dox diggante askan bi tooñante yeeg yooyu yépp mu maandu seen diggante atte li nga xam ne moom mooy yoon mooy dëgg <clears throat> mu ne xaar rasulullah sallallahu alayhi wasallam doontu sallallahu alayhi daal di wax ne maa lii lan moo lun mooy araamaay gis siyaabukum la tatasix wala tabli mu ne lu tax itam ma gis yéen seen yére yi du kii waaw du tilim du xotteeku lu tax seen yére yi du tilim du xotteeku mu ne waaw ndaxte ñun duñ def bàkkaar loolu waral ñun suñu yére yi du ràpp te du du du tilim gis nga ko mu ne xaalu ñu dal di wax ne tilka siyaabu ummatika yaasuna laa fa tatasix am euh, aswaabahum wa tabla sarian mu ne yow sa xeet ñoom dañoo bëri bàkkaar looloo waral ñu gaaw di ràppal yére wala gaaw di tilim tilimlal yére mu ne amma nahnu fala nu xaalifu amrullaa ñun duñ euh, mooy ndigalal yàlla wala nu si yi te itam Euh, duñ mooy li nga xam ne loolu laay euh, tere mu waxaat mu ne maa lii raaytu jamaatan minkum yadhakuuna lu tax ma gis ñenn ci yéen ñoom ñu ngi ree rek xaalu ñu dal di wax ne yadhakuuna dañuy ree li annahu naka ndaxte moom maata ahaduhum kenn dafa dee ci ñoom alal imaani mu ne ci ngëm fa yadhakuuna farihan lahu mu ne mu laaj leen ne waaw yéen lu tax ma gis leen ñenn ñi di ree ci yéen ñu ne waaw ndaxte comme ça tey dafa am ñoo xam ne comme ça dañ am niw ñoo xam ne dee na comme ça niw boo xam ne dee na ñuy ree ci loolu lu tax ñuy ree mu ne ndax dañ xam ne waa ji dafa gëm dafa dee ci ngëm yàlla muy loo xam ne lu ama ama ama am solo ngi noonu mooy dee ci ngëm yàlla tey nit ki su dee comme ça tëdd ci lalam yeewu bët set rek dee na ñu ne ay ndeysaan xoolal waaye moo am mujj gu rafet ay waay waay di waroon nañ am li mu am dañ xëy rek kii ci lalam ñu ne dee ñu foog ne loolu moom mooy comme ça dee gi nga xam ne mooy déegi gi déedéet tey nit ki mën naa dee ci accident octo mbëkku ko ba mu bañ koy forpar ay morso morso fekk dafa sëyit gis nga ko euh, bàyyi yonent yàlla Muhammad bi nga xam ne mooy Hamza ci Uhud lañ ko jàpp rey ko jël biiram bi xotti ko génnee resam bi yéey ko ba di ko puufu yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ko def li ñuy wax baqru mooy comme ça def ko li ñuy wax muslu mooy comme ça dagg ay ñoof ay noppam dagg ay li nga xam ne mooy ay sakaram lii yëpp def nañ ko bàyyi yontu yàlla muhammad te borom riyaat bii wax na ne kooku su dundoon gànnaaw yontu yàlla muhammad rek mooy doon maqaamam bi mooy xilaafa gi ni ko noonu moom moo koy yenu nga gis dee gi mu kon loolu yépp waaye tey nit ki su dee woon ci accident fekk jamono yooyu mu nga kii woon ñu commencé xam ah, mënu koo ñàkk kii nangam nangam te fekk na mun na am dafa sëyit sax kon loolu waaye gis nga ñii ñoom liñ xaajaanoo mooy ne dee ci ngëm yàlla dee ci ngëm yàlla moom moo tax comme ça tey nit su demee ba xam ne mu ngi ci xarxarli bëgg a dee ñu ne nañ ko sa baati laa ilaha illallah nga gis koo xam ne day ñëw ci wetam ñu ne ñu digal ko wax ku ne day wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah di ko wax rek waaye bul ko wax waxal de day wax loolu rek bu ko jëlee moom wax ko rek loolu bokk na ci màndargaay texe bokk na ci màndargaay texe am na yoo xam ne daal boroom xam-xam yi junj nañ ko ne soo ko gisee ci jarak mooy niw buy kuy waaj a dee rek xamal ne kooku texe na loolu ci la bokk mooy jël baati laa ilaha illallah rek mujjee ko ci làmmiñam rek kooku texe na mu ne xaala mu dal wax ne raaytu baadukum yabkuuna waaw dama gis ñenn ci yéen ñu ngi ñu ngi ñu ngi jooy xaalu ñu dal di wax ne wulida fiihim juddu na ci ñoom mawludun mu ne kii liir walam yaarifu lam yaarifu xamuñ ala ay diinin yamuutu fa lisa yakunu yabkuuna xawfan alayhi ñu ne ñeneen ñi itam mu ne di jooy ñu ne ko waaw yéen lu ngeen di jooy mu ne ah ñoom de dañ am liir bu juddu ñuy jooy mu ne lu tax ñu ngi ñuy jooy mu ne dañ ragal daal mu génn àdduna ci noo xam ne daal naka si du noonu la comme ça ña génne àdduna ci noo xam ne nekkul ci ngëm yàlla kon gis nga ñoom liñ doon ragal wuutee sens contraire ak ñun tey soo amee doom yégale na kii da ngay muuñ kontaan ba doo xam li ngay wax comme li nga xamee ne mbokk sekkeen bale noonu la defoon dem am euh, jabar ji am doom ñu wax ko ne ko am na doom rek mu départ commencé yëgle moom xamagul sax góor la am walla jigéen commencé dem di yëgle ñu ne ko waaw yow soxna si lan la am mu ne ah xaw ma góor yi la am walla jigéen di waaye <laughs> am na doom daal <laughs> mu ne di góor yi daal di jigéen daal waaye am am na doom gis nga ko kon yàkkamti na kontaan na waaye uuteeg ñii nag ñoom li ñu wax ñoom ndeysaan ñu ngay jooy ndax tey doom bi si juddoo yonent sallallahu dafa wax ci hadis ne kullu mawludin yuladu alal fitra képp ku judd rek danga nga judd ci fitra mooy danga nga judd nekk comme ça papier blanc amagoo dara ci bàkkaar léegi nag say waajur wala yow mi ci sa bopp yow yaay jéng demal sa bopp ci leneen waaye nag te loolu dana ko wax ci léegi ci kanam dana am foo xam ne dana fa wax ci mbir yu demee noonu waaw mu continuer di wax ne waqata naahum ñu dal di leen tàqale kon ñu continuer ci té ci ci kii aaya yi mooy waqata naahum lëli sara bi la woon rek mu ne waqata naahum ñu dal di leen tàqale ñoom banu Israël isna asara asbaatan mu ne fukki euh, giir ak ñaar moom laa la doon wax ne la ba yàlla digalee ko ne ko tànnal fukk ak ñaar xaw ma juróom-ñaar fukk mu ñëw ci giir yi fukk ak ñaar tànn fa ku nekk juróom benn mooy kon soo ko multiplier rek mu wax li monsieur Ndiaye wax mu nekk 72 boobu moo tax mu wax ne naa asara baatan mu ne umma man ñuy ay xeet waaw xay naa mu ne ñu dal di wax yu ilaa Moussa mu ne ci yonti yàlla Moussa isistasqa ba nga xamee ne sàkku naa nàndalu xaw mu hu mu ne aw nitam an adrib mu ne dóoral bi asaaka mu ne sa eet bi alxajara mu ne doj doj bi fan ba jasat mu ne mu dal di euh, éclaté minu ci moom is isna asara aynan mu ne fukki sew ne ak ñaar xad alima mu ne xam na mu kullu unaasin bépp nit masrabahum mu ne seen naanuwaay wa zalal naa mu ne ñu dal di saxal alayhim ci ñoom alxamaama mu ne niir wa kon yontu yàlla Muusa yàlla digal ko ne ko nag demal dóor et bi ca doj ba mooy doj ban doj bi nga xamee ne yontu yàlla Muusa ñu ne dafa nekkoon koo xam ne ci banu Israël nekk koo xam ne ku bari kerse la léegi ba banu Israël ñoom buñ doon sangu dañuy ñëw ci pénc mi def àllab neen mooy def daal yaram yi neen di sangu ñoom yi neen yontu yàlla Moussa nag moom rus na loolu moom dafay dem làqatu ji fële simmeeku ba set sangu léegi ba mu defee loolu nag di sangu foofa rek doj bi jël fekk na yontu yàlla Moussa loolu lañ ko doon jiwee moom gànnaaw nangu wut a def liggéey di def ñu koy jiwee nag naan hay kii de dafa xuuxaan xuuxaan benn feebar la boo xam ne dafay jàpp ñaari woy yore yi nekk ci sàkkaraam nit ki dafay rëy rëy rëy su ko defee <clears throat> ñu koy jiiñ loolu nag naan dafa dafa dafa xuuxaan léegi nag yàlla bugg koo setal ci loolu moo tax nag doj booba yonti yàlla Muusaa ñëw simmi yéreem yi teg ko ca kaw doj ba rekk doj bi dem ak yére ya rek Muusaa topp ci ne alxajaru saw bii alxajaru saw bii Eh, doj bi jox ma sama malaan bi doj bi jox ma sama malaan mi ndeke yàlla daf ko bugg a setal booba noonu la dem nag ba ca pénc ma rek mu root fa gaa yi yëpp ñëw gis yonte yàlla Moussa ni mu daw nii ak yarami neen ba yegsi ci ñoom ñu gis ne nag li ñu doon wax noonu yëpp nekkul dëgg doj booba nag booba la ko yontu yàlla eh, yàlla wax ne ko wax yu ko ne ko jëlal doj bii danga nga ci ami soxla bañ nekkee ca teewu ba nag mooy ca ngëlmaande googa ñu nekkoon noonu ñu ngi ci diir boo xamee daal saxaraa boo xam ne bu rëy rëy la ñu nga fa gëlëm xamuñ fu ñuy dem dañuy xëy daal suba ba ngoon jot di wër suñu wëree ba ngoon jot dañuy dellusiwaat fañ nekkoon loolu ñu ne nekk nañ ci ñeen fukki at moo tax loolu yëpp li leen ko yóbbee mooy jëfi nit ku bon waaye nag foofa ñu ngi fa am privilège yoo xam ne li leen ko tax a am mooy ànd ak nit ku baax yonte yàlla Muusa ak Haaruna taalibeem yu baax yooyu mooy kaalib ak yuusa moo tax <clears throat> dem nañ foofu dana ko wax ci ci kanam mooy suñ buggee lekk ñu wàcce leen man na ak salwa gis nga biñ ko jàmbalatale jàmbatale mbiri naan yàlla wax ko ne ko eh, sa sa doj booba weeroon la noona jël ko da ci am soxla ne ko dóoral doj bi soo ko dóoree rek dana éclater ba pare tas def fukki sewnde ak ñaar banu Israël fukk ak ñaar lañ woon ci ay xeet su ko defee ku ci nekk ñoom danañ naan te duñ am benn problème gis nga foofu mu ngi lay jàngal comme ça euh, kii ak kii comme ça euh, tey liñ wax comme ça arifu billahi wala tey ñooñ tariqa yi tey loolu la lay misaal mooy ne ci doj boobu lañ éclatel fukki sew ndi ak ñaar ku ci nekk di naan doo yàqal sa morom tariqa lii moo ko tax a jóg de mooy ne diine lislaam moom mooy misaal ci doj bi sew nde ya éclaté foofu mooy comme ça tariqa yi te ku ci nekk murit bi mën naa dem naanee ci sew nde sàngam tiijaan bi dem naandee ci sew nde sàngam xaadir bi dem naandee ci sew nde sàngam kenn du yàqal sa moom moo tax kon loolu loolu laay junju ne ku ci nekk da naan sa kii te doo yàqal sa morom du ngeen am benn problème yéen ñëpp a ngi naan te ndox ngeen di naan ndox mu sedd ngeen di naan amul benn problème moo tax xiiroog euh, tariqa yeeg nangam nangam ñàkk a xam rek waaye jarul ñoom ñëpp ku ci nekk fa ngay naane yëpp dafay dellu ci benn balluwaay bi rek mooy doj boobu mu la wax noonu. moo tax mu ne fan ba jësat mu ne mu dal di éclater minhu ci moom isna asara aynan fukki sewnde ak ñaar mu ne xat waaye xam na. kullu inaas kullu unaasin bépp nit masrabahum mu ne seen naanuwaay ku ci nekk rek xam na naanuwaayam wa zalal naa mu ne ñu dal di saxal alayhim ci ñoom alxamaama mu ne niir wi baleen tàngoor wi jàppee rek am niir boo xam ne moom mooy ñëw di leen niiral loolu leen ko yóbbee rek mooy yontu yontu bi nga xam ne mu ngi ànd ak ñoom bokk ci ulul azmi niir bi ñëw di leen niiral comme ça di leen keral daal gis nga ko mu ne wa anzal naa ñu wàccee alayhim ci ñoom almanna wa salwa mu ne man na ak salwa borom riyaad ne man na ak salwa mu ne comme saa dafa mel ni euh, kii ak picc daal comme picc yoo xam ne dañ leen togg ba mu ñor wala comme mburu moo xam ne dañ ci soos daal dugal ci comme ay kii dugal ci yàpp ak yu demee noonu di wax ne mu ne kuulu lekk leen min tey baati mu ne ci way teew way rasax naakum li nga xam ne lañ leen warsagal lekk leen ci nag waaye bu leen denc mu ne wama naa waaye nag ñoom tooñuñ ñu lu xew ba tooñuñ ñu mooy ne ñu jël denc ca bëxëñ ca affaire ba daldi dem moo tax mu continue ne wa maa na waaye tooñuñ ñu walakin na waaye nag kaanu nekkoon nañ mu ne yes li mu ne di tooñ anfusahum mu ne bopp seen mu dal di continuer wax ne waskur na nga fàttaliku is xiila lahum ba nga xamee wax na leen uskunu mu ne dëkk dëkk leen haazihil xarya mu ne bi leen bi la dëkk te mooy baytul muqaddis mu ne wakuulu ngeen lekk min haa ci moom hay si sutum lu leen soob waquulu ngeen dal di wax ne xittatun sippeekoog bàkkaar waduqulu mu ne ngeen dugg albaaba mu ne bunt ba sujjadan ngeen di woy sujjuut léegi yàlla digal leen nag ne leen dem leen ngeen dëkk nag ci dëkk ba mooy baytul muqaddas waaye wala baytul muqaddis ci beneen façon mu ne lekk leen nag lu leen soob mu ne waaye nag sàkku leen itam sippeekook bàkkaar borom riyaad ne loolu ñu leen waxoon mooy laa ilaha illallah mooy daal nañ sàkku sippeekook bakka bàkkaar moo tax laa ilaha illallah moom moom ba mbëstan mbooleem maqaama yi mu ne sujjadan ngeen di woy sujjuut léegi ñoom bam leen waxee lii ñoom ñu dem wax leneen liñ wax mooy xabatun fi siaratin mooy ne mu wax leen ne sujjuut leen ñoom ñu dem jëm commencé di darngu di def nii darngu nii mooy darngu su ko defee ñoom ñuy dangu léegi mu ne leen sàkku leen si euh, sippeeku bàkkaar ñoom ñu wax ne xabatun fi saaratin léegi mu continuer di wax ne mu ne fa baddala ñu wecci allazina la nga xam ne zalam allazina ña nga xam ne zalamu mu ne tooñ minhum ci ñoom xawlan mu ne ci wax al xayra allazi lu mooy la nga xam ne xiila waxoon nañ leen ko mooy liñ leen waxoon au lieu kon ñu wax ko ñoom ñu dem wax leneen faarsal naa mu ne ñu dal di yebal alayhim ci ñoom rij seen mu ne mbugal ma mi ne samaay bàyyi ko ci asamaan bi ma kaanu ca lañ nekkoon yes li moon a mu ne di ko tooñ yàlla dal di indi ci ñoom mbas su ko defee juróom-ñaar fukk ci ñoom dal di dee mu ne was alhum nang leen laaj yow yontu yàlla muhammad laaj ak xaste la mu ne anil xaryati lati ci dëkk ba nga xam ne kaana nekkoon na xaadiratil bahri mu ne dend ak géej ga is yaaduuna ba nga xamee ne ñu ngi jalgati fii sabti mu ne ci samedi <coughs> istatihim ba nga xamee dana mu leen dikkal hitaanuhum mu ne seen jën ya yow ma sabtihim mu ne bésig sa bés ak samedi suraan mu ne ñuy daldi tëmb wa yow ma laayas bi tuuna mu ne ñoom vi kenewuñ ci mooy ne bés booba daal ñoom ñu leen santoon mu ne buñ ko napp ñoom ñu daldi feeñal ak pexe kon muy nettali ne ñu Israël dañ leen tere woon ne comme ñoom yàlla daf leen digaloon ne nañ jël comme ça bési aljuma ñu ne ñoom déedéet duñ jël lool ñoom bés bi nga xamee ne la yàlla bind ñu ne asamaan ak suuf bindeef yooyu yëpp yàlla daf ko bind ci juróom benn fan juróom ñaareeli fan ba ñu ne ci noppalu ci waxin yàlla moom du sonn waaye nag ñu ne ca la def daal faraax ñu ne loolu lu muy jàngal doomu aadama bi daf koy jàngal programme mooy nanga nekk niti programme bul nekk koo xam ne da ngay jël rek comme ça euh, di def irtijaal irtijaal mooy di làmbatu rek defoo dara daal lu tege ci yoon moo tax yàlla <coughs> bam bindee ba pare ñu ne juróom-bennee li bés ba juróom-ñaareel ba samedi ba mu ne mu noppalu ñu ne ñoom nag bés boobu la jël ah bañ koo bañee jël xeeti yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ñoom ñëw jël ko bési samedi ñoom ñëw xaw ma bési àjjuma ba ñoom jël ko bés boobu mooy sang bés yi bés boobu nee nañ ci la àdduna di tukki ci lañ bind yonent yàlla aadama ak Awa ñu ne itam ci lañ mayee yonent yàlla yonent yàlla aadama ci lañ ko may naa Hawa kon muy sang bés yi moo tax gis nga ko ñu jox ko ko ñoom ñu taamu ne ñoom bés ba yàlla kii moo tax gis nga ngëneel gi yonent yàlla Muhammad jël na ko moom ak xeetam yahud yi ñoom ñoom ñëw ci samdi boobu léegi nag samdi booba ñu ne jën bi nga xam ne moom moo wan noonu yonent yàlla yunusa jën yi dañ ci doon ziyaare ji jën boobu ngir rek wan bi mu wan noonu yàlla boobu ñoom ñu ñëw di ko ziyaare si léegi nag ñoom yàlla tere leen ci napp nag ne nag lu mënti am bu leen ci napp de ñu ne waaw ñu dem nekk ci noonu ba ibliis ñëw rek jàppandal leen ko ne leen ah waaye yéen lii de moom mën ngeen a tëral pexe de ayewul leen ci ne nangeen ngeen kii mu indil leen pexe napp la leen ci aaye ne bu leen napp waaye mun ngeen a def pexe gis nga moo tax toujours bu jot loolu dafaa indi yàq mooy ne bul def yow nga indi sa tawili bopp bul def nga bañ a def waaye indi sa taal bopp ah moom de ba mu waxee itam waxutoon lii lii la waxoon ñëw rafetal leen ko rek won leen di napp la leen aaye def leen pexe defal leen pexe ñu ne ni mu defee pexe nag mooy ne dañ gas pax mu jógee ca géej ga ñëw a ñëw ba ci seen kër yi léegi su ko defee xam nga géej moom comme ñi xam géej ñëpp mooy ne day toog jamono boo xam ne dafay feesal su ko defee dafay puus ndox mi muy ñëw bu ñëwee ba xam ne fi mu doon yem su ko defee daf koy récupérer waat encore moo tax muy waral ngay gis soo demee ci tefesi géej di nga fekk léeg ndox mi ñëw a ñëw a ñëw ba kii fees dell tefes bi waaye léeg nga fekk ndox mi delluwaat complètement léegi nag mu won leen xalaat boobu ñu gas ci seen biir kër yi su ko defee su géej gi feesalee kon xam nga ndox mi dafay ñëw ba dugg ci biir léegi nag bi mu duggee ci biir kon su ndox mi waree dellu ñu dem nag def fa kii comme ça tey xam nga soo gasee foofa su fekkee def nga fa giriyaas ndox mi dana mën a génn waaye nag jën yi ñoom ci seen bopp duñ mën a génn ndox mi yëpp génn jën ya des fa ñu dem jël yëpp dem commencé togg lekka lekk ba suur dem jël jaayi noonu pexe moom ci lañ nekk nag kon xam nga dafa mel ni teggi wuñ li yàlla tere fekk na teggi nañ ko bu yàgg yàlla daf leen bu leen napp mooy ne kay yéen bu leen jël jëfandikoo jëriñoo ko rek waaye ñoom ñu del def ko iblis rafetal leen ko won leen ne daal ne lii da ngeen def pexe ñu dem tëral pexe moom gis nga loolu nag moom moo indi ñu dem napp ca bés booba nag yàlla mere leen ci loolu moom lay nettali nii fu ñu amati saxati hmm? hmm? alhum nang leen laaj anil xaryati lati ci dëkk bi nga xam ne kaanat nekkoon na haadiratal bahari mu ne dend ak géej gi mu ne is yaaduna ba nga xamee ni ñu ngay jalgati fi sabti mu ne ci bési samedi istatihim ba nga xamee dikkal na leen hiitaanuhum mu ne seen jën yow mu sabtihim mu ne bési samedi surraan mu ne muy tëmb wa yow may laayes bi tuuna mu ne bés boobu nga xam ne ñoom duñ ko doon euh, ñàkk a napp muy bési samedi booba mu ne laa tatihim du leen dikkal mu ne kazalika naka noonu nabluhu mu ne lañ leen euh, nattoo bi maa kaanu ca lañ nekkoon yaf suquuna mu ne di ko génn topp mooy pexe moom nga xam ne lañ defoon pour di napp ca bés booba mu ne wa is ba nga xamee ne wax na ummatun mu ne xeet minhum ci ñoom li ma taizuna lu tax ngeen di waar xaw man mu ne aw nit allahu moom yàlla mahlik muhlikuhum moo leen di alak aw muazibuhum mu ne wala mu buggal leen azaban sa sadidan boo xam ne bu tar la léegi nag loola ba mu amee am na ci ñoom ñoo xam ne ñoom dañ doon waaraate ñuy wax leen ne ah yéen yàlla tere woon na ne bu leen napp bu ñoom dañ nëpp woon ah suñu yoon nekku si ñu ne waaye ñaari couleur yële yépp yàlla alag na te dana wax lim leen alagee ci kanam léegi mooy ne ñi nga xam ne napp nañ ñooñu moom xam nañ seen mbir waaye ñi nga xam ne ñoom nappuñ waaye jàpp seen bopp ne ñun suñ yoon nekku sax ñooñu itam lu tax ñu alag leen mooy dañ dégager seen responsabilité moo tax ñu ne foo gis ci xeet lu bon am ñi war a laay biir nañ jóg laay biir ñi war a wax nañ jóg wax lu ko moy su mbugal ñëwee ñoom kenn du ci mucc mu ne waaye nag xeet bi nga xam ne ñoom ñoo muccoon ci ñoom daal ci ñetti kuréel yooyu mooy ña doon digle ah yéen de yàlla waxoon na ne bu leen napp de yéen a ngi nit napp nag waaye nag ah wax nañ leen ko de gis nga ko loolu laay nettali noonu nag mu ne wa is xaalaat ba nga xamee ne wax na ummatun ab xeet ci ñoom minum ci ñoom li ma lu tax ngeen di waar xaw man mu ne aw nit allahu muhlikuhum moo leen di alak aw muazibuhum wala mu mbugal leen azaban sadidan mbugal lu tar xaalu ñu dal di wax ne maaziratan ak ngantañ lu ilaa rabbikum mu ne jëm ci borom seen wala allakum mu ne xel na tat na mu ne ñu dal di ragal yàlla ci napp fa lamma nasu ba nga xamee ne bàyyi nañ maa zukiru li nga xamee ne waar nañ leen bihi ci moom an jay naa mu ne ñu dal di musal allazina ñi nga xam ne yenn xaw na ñoom ñoo doon tere ani suu i mu ne ci lu bon waa xas naa mu ne ñu dal di jël ñu jàpp allazina ñi nga xam ne zalamu ñu ne tooñ nañ ci jalgati gañ def bi azabin ba isin mu ne bi azabin <coughs> ba isin wala ya isin baabin ba isin ci mbugal moo xam ne mbugal mu tar la bi maakaanu ca lañ nekkoon yaf suquuna mu ne di ko génn topp kon gis nga ñoom ñi nga xam ne ñoom terewuñ won ne suñu yoon nekku ca ñoom bañ ñëwee itam mbugal ma def leen jotaale moo tax mu ne wa an jay naa ñu dal di musal allazina yan xaw na ani suu yi ñi nga xam ne ñoom ñoo doon tere bon la waa xas naa ñu jàpp allazina ñi nga xam ne zalamu mu ne tooñ nañ ci jalgati bi azabin ba isin ci mbugal mu tar bi maakaanu ci lañ nekkoon yef su xuuna mu ne di ko génn topp fa la maa ataw ba nga xamee ne réylu nañ an maanuhu ci li nga xam ne tere nañ leen ko anhu ci moom xul naa ñu dal di wax ne lahum ñeen leen kuunu nekk leen xiradatan mu ne ay golo xaas yi na ngeen di woy torox kon gis nga noonu la leen alage mooy bam leen teree lim leen tere ne bu leen napp ñoom ñu dem napp ñu ne ñoom ña doon tere daal nañ xëy daal suba teel ñoom ñi jëfoon mbir ma bañ ñëwee ca seen néeg yi rek mu ne kuñ ubbi sa néeg dañ toog rek ba mu yàgg waa ma ne ñun de suñ mbokk yi moom ba léegi yeewuñ ñoom ñu nga seen biir ndekete yooyu ñoom yàlla soppi na leen golo bu yàgg ñu nga ci seen biir néeg yéen muq muqaaral léegi nag ñu xëy ba naaj bi tàng ñu ne waaw ñun suñ mbokk yi ba léegi yeewooguñ ah waaye mën di lii moom doy na waar ñu dem ca ñoom mu ne néeg boo ubbi rek gis golo ne peut commencé daw di kulang rek di dem kuñ ubbi néegam rek noonu mu commencé daw noonu mu ne la leen alage moo tax mu wax loolu ne ñi nga xam ne <clears throat> mu ne wa istaazana ba nga xamee ne xamlu na rabbuka mu ne borom sa la yaba la mu ne dana dekki dana dekkil ci ñoom ñoom yahud ilaa yawmil qiyaamati mu ne ci bés penc man yasuumuhum koo xamee dana leen laalal suu al azaabi mu ne tarak mbugal inna rabbaka mu ne naka borom sa la sariwal inqaab bi mu ne ku gaaw ak mbugal la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy mooy mooy wa innahu naka moom la xafurun waaye aji jéggale la gis nga subaana wa taala dafa bëri yërmande moo tax gis nga ba mu tuddee mbugal rek ñëw na indi njëggal teg ca ndax moom toujours bu jot dafa bëgg jaam yi di dundee mooy xaw fa ak rajaa di yaakaar waaye di ragal moo tax gis nga loolu ñu ne mooy ngën ji maqaama di gu dundee xaw fa ak rajaa mooy lan mooy ne léeg nga xalaat hey waay waaye man de man li ma def ci lu bon commencé di xalaat ne hey ay yowmal qiyaam di xalaat yooyu waaye raja mooy ne comme misaal yi nga xam ne wax nañ ko ci xeet wi xam ne yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ne xeet bi li ci gën a bëri aljana lay dugg loolu ak yaakaar la su ko defee yaakaar yooyu nga jël di ko dundee waaye nag bul ko jël nga jéngal ko mooy ne toujours bu dee day bàggante ci ñaari maqaama yi xaw fa ak raja moo tax aarifuna billaahi ñoom loolu la ñuy dundee mooy diggante xaw fa ak raja toujours bu jot oto bi boo accéléré ba mu tàng jër nga wàññi sa loxo ba affaire bi sedd nga continuer waat bàyyi boo accéléré mu tàng nga continuer accéléré soo moytul rek oto bi day sufi moo tax maqaam ak bi noonu la war a dundee mooy léeg-léeg da ngay accéléré ba mu tàng nga wàcceewaat sa kii dundaat noonu su ko defee dëkk ci bay na xawf ak raja moo tax ñu ne soo gisee ca suratu waaqia alquran wax ne léebee ne euh, ñoon aljanna mu ne wàllax mi tayrin mi maayastahuuna ñoom comme sa yàpp ak picc suñ demee moom lañ leen di gënalee ñun lu tax mu wax loolu waxut yàpp xare yaa ngi fi yàpp ganaarang fi yooyu yëpp neex bu bëgg a dee mu dem di indaale misaal ne yàpp picc lu tax loolu xaarifu ne billaay ne yàlla day jàngal ne comme ça lim la wax nii ne la dangay yore maqaam ak picc picc moom ñaari maqaama lay dund mooy naaw ci kaw jawwu ji tiim li ko war a lor yépp naaw dem bàyyi ko fa waaye léeg mu ñëw fekk ci ko gis nga ñëw dal ci xetax ba lam fa am soxla ci ay kii ak dugub ak yooyu mu cob ko demaat encore ci kaw moom noonu lay bàggante moo tax mu léebu leen ne wallax mi tayrin mi maa yastahuuna waaw yàpp picc mu ne la bëgg di euh, kiyee keroog xewlu lu ci tegeeti hmm? naahum ñu daldi di leen taqale fil ardi mu ne ci suuf man ñuy ay xeet minhumu saalihuuna mu ne bokk na ci ñoom ñuy xéwénal wa minhum bokk na ci ñoom duna saalika ñoo xam ne ay xéefar lañ wa balaw naahum mu ne ñu dal di leen euh, nattu bil xasanaati mu ne ci yu baax yi mooy xéwal yi wa sëyi aati mu ne ak itam euh, ñaawteef yi mooy yu bon yi kon nag gis nga nattu daafal na ko lu baax waaye daafal na ko itam lu bon mooy ne nattu léeg dana ñëw nekk ci lu neex léeg-léeg dana ñëw nekk ci lu naqari xam nga alxuraan wax na ne Euh, innama amwaalukum wa awlaadukum fitnatun ne doom yi ak alal yi fitna la kon su fekkoon ne comme ça lu neex rek la du ko tuddee fitna waaye gis nga ko kon wax na la ne la foofu doom ak nim neexee li muy neex neex yépp ah dëxëñ na nattu ci biir alal itam moom itam noonu li muy neex neex dëxëñ na nattu ci biir moo tax gis nga fii mu askalale ko ñaar yépp mu ne wa balaw naahum ñu nettoo leen bil hasanaati mu ne ci e, xéwal yi wa sayi aati mu ne ak safaan ya laallahum xel na ñoom yarjiuuna mun ñu dal di dellu gànnaaw fa xalafa mu dal di mi min baadihim mu ne gànnaaw seen xalfun mu ne ñu bon warisul kitaab mu mu ne ñu dal di donn téere bi na mu ñu ne ñuy dal di jël arada haazal adnaa mu ne gaaral ak e, dund ak àdduna bile mu ne wa yaquulu na ñuy dal di wax ne sa yuxfaru la naa mu ne danañ ñu jéggal wa in yatihim mu ne bu leen dikkalee aradun mu ne ak gaar-gaar misluhu mel ni moom yaquzuunahu mu ne ñu daldi ko jël daal yi ni nga xamee ne comme yàlla jox na leen téere bi ba pare ñoom ñuy jël nag comme ça àdduna di ay mbiram ger yooyu yépp ñu jël di ko lekk suñ waxee rek ñu ne sa yux far la naa ñu jéggal ba pare nag ñu sax ci li nga xamee ne moom mooy nuuraan ci li nga xamee ne moom mooy bàkkaar te fekk tey ko moo tax bàkkaar loolu moo ci gën a garaaw mooy bàkkaar saa yu nit ki yëgee ne comme ça lii naqari na ko xam ne bi mu koy def bakka na ko not rek mu def ko mu pare rëcc ko loolu su koy jéggalu rek yàlla jéggali ko ci saa si waaye nag lii gën a bon ci bàkkaar mooy danger mooy def ko ba pare di wone nag di kii ne man maa ko def mu neex ma loolu la yàlla gën a bañ moo tax gis nga muy wax loolu hmm. moo tax juunal maxfira ñuy yaakaar li nga xam ne mooy euh, njëggal loolu nag ci saraa bi la waxum ñoom aiduna ñuy dellu ilaa ma faalu ca lañ def musiruna mu ne ñuy nuuraan ale yi ci moom walaysa fi tawraati waadul maxfirati maal israar mu ne waaye tawraat lii nekkul ci mooy digile li nga xam ne digee li nga xam ne mooy njëggal loo xam ne dafa ànd ak nuur ci euh, bakkaar déedéet mu ne loolu tawraat nekkul ci ñoom nag loolu lañ sax di def lu bon ba pare nuur ca nag di wane ne danañ ñu jéggal mu ne alam yu mu def istifham mu ne alam yuqas ndax jàppuñ alayhim ci ñoom misaaqu mu ne kóllëre alkitaaba mu ne téere an laa yaqulu mu ne bu ñu wax alallaahi mu ne ci yàlla ilal xaq mu ne ndëree dëgg wa darasu mu ne ñu dal di jàng maa fihi la ca nekk li maa fa li ma kazabu kon lu tax ñuy weddi maa fihi mu ne la ca nekk wa daarul axirati mu ne ak euh, kër ak àllaaxira xayrun moo gën li lazina ñeel ña nga xam ne na mu ne ñoom ñooy mooy tëndeku ñooy teet alxaraam mu ne ñooy tettandiku lu xaraam ñooy mooy tëndiku lu xaraam afala na mu ne ndax du ngeen am xel mu ne wala siina ñi nga xam ne yu masikoona ñoom ñooy jàpp bil kitaabi mu ne ci téere wa aqamu salaata mu ne ñuy taxawal julli inna naka ñun yàlla laa nu diw mu ne ñun duñ sànk ajral muslihiina mu ne ah, payak ñi nga xam ne ñooñ ñooñ xéwénal lañ mu ne kon yàlla moom du sànk Euh, ñi nga xamee ne ñoom dañuy euh, xéwénal mooy ñim wax foofu ci seen mujj mu ne wala siina yu masiku na ñoom ñoo jàpp bil kitaab bi mu ne ci téere mooy tawraat waa xamu salaata ba pare ñuy taxawal julli mooy ku mel ni Abdullah ibnu Salaam bokkoon na ci fóode yahud yi nga xam ne dafa xamoon tawraat lool waaye nag mujj nag dugg ci lislaam dugg ci lislaam rafetal ko lool nag moo tax mu leen di tagg fii ne wa aqamu salaata ñu taxawal julli innaa naka ñun yàlla laa nu diw mu ne duñ sànq ajral muslihiina mu ne payak ñooñ xéwénal ñi mu ne waskur na nga dal di fàttali is nataq naa ba nga xamee ne yëkkati nañ aljabala mu ne doj ba faw fawqahum mu ne ci kaw seen ka annahu mu mel ni zullalun mu ne niir la wa zannu mu ne ñu dal di leerlu zann dafay firi xaaj mooy day firi yaakaar walla njortu waaye nag day firi itam comme ça yaqiin moo tax fii borom riyaad ne zannu bi noonu lañ ko war a firee mooy ñu leerlu mooy ñu am yaqiin annahu naka moom waaqiun bihim mu ne dana tàbbi ci ñoom mooy ne bañ defee seen problème booba yàlla sant leen ne sujjuut leen ñu tëne duñ sujjuut yàlla dem nag dëqati yónni yónni yónni yàlla jibril mu diqati mu diqati ko nag tiimale leen ko mu bel ni niir boobu boo xam ne bu leen keral la ñu commencé nag di ko gestu naan nii yàlla na leen sujjuut rek forcé li ma leen wax ngeen def ñu ne moo tax ba léegi nga gis yahut loolu mooy seen sujjuut mooy dañuy sujjuut nii sëpp seen wàll bopp di mel ni luy séntu ca kaw mooy doj bi nga xam ne moom la yàlla tiimaloon noonu moom la ñuy kii moo tax ñoom noonu la ñuy sujjuutee moo tax mu wax ne xuzu mu ne jàpp leen maa atay naakum liñ leen indil bi quwatin mu ne ci farlu waskuru mu ne na ngeen fàttali maa fihi la ca nekk wala ngeen jëfee maa fihi la ca nekk laalakum mu ne xel na tattaquuna mu ne ngeen dal di ragal yàlla acca jël leen li ma leen wax ngeen def ko mu ne waskur na nga fàttaliku is aqaza ba nga xamee ne jàpp na borom sa min bani aadama mu ne ci doom aadama min zuhurihim mu ne ci seen gànnaaw zuriyatihum mu ne njaboot waa ashadahum ci njabootam aadama wa ashadahum mu ne mu seedaloo leen ala anfusihim mu ne ci bopp seen alastu bi rabbikum ndax nekkuma borom seen xaalu ñu dal di wax ne balla ahakay mooy ne yow ma alastu yàgg nañ dégg ñu koy wax loolu nag lay nettali fii ne yow ma alastu bés ba yàlla màngee ruuxu yépp képp ku nar a dund rekk képp ku yàlla nar a bind mu nar a doon doom aadama ci àdduna bii yàlla teewal na foofu sa ruuxu su ko defee nag laaj leen nag moom la leen laaj-laaj bii ne leen alastu bi rabbikum ndax nekkuma seen boroom ruuxu yépp ne ballaa ñu ne waaye nag dañ nekkoon ñeenti sàppe sàppe bu njëkk bi yonent yi ak xutbu yi ñoom ñoo fa nekkoon sàppe ñaareel bi mu ne way gëm yàlla yi ak wali yi ñoom ñoo fa nekkoon sàppe ñetteel ba mu ne jullit ñi ñoom ñoo nekkoon foofa sàppe ñeenteel ba nag yéeféer si ñoom ñoo fa nekkoon su ko defee ñu nekk daal ñeent ñeenti sàppe waaye sàppe si njëkk ñoom moom dara doxut seen diggante ak yàlla mooy ne yonent yi ak xutbu yi dara jotul seen diggante ak yàlla ñoom direct lañ def ak yàlla waaye ñeneen ñi am nañ benn kiiraay mooy ne yonent yi ñoo nekk seen kanam moo tax ñoom kiiraay bu woyof lañ am waaye ñeneen ña ñoom ñeneen ñaari sàppi encore nekk na seen kiiraay kon ñooñu ñoo gën a talati kiiraay ñeneen ña des nag ca gànnaaw ñu ne ñoom it nag dañ toog rek dégg gaa yi wax ne bàllaa ñoom itam ñu wax bàllaa yàlla joxe nag comme ça euh, seede foofu ne leen ndax nekkuma seen borom ñu ne ko xàkkay gaa yi waxante ko jàllalante ko ba ñu ko war a dégg ñëpp ñu dégg ko ñëpp ne bàllaa ku ci nekk rek waxoon na ñu ne loolu tax ma wax comme ça hadis bi yoontu waxoon léegi ne kullu mawludin yuladu alal fitra képp koo xam ne ku judd nga daal dangay nga judd ci fitra mooy signé wante bi nga xam ne accord bii nga xam ne lañ joxante woon ak yàlla dëxalante bii ne ko yow yaay suñ borom léegi nag dañu ñëw fii ci àdduna nag commencé ko teppi na waaye nag ca alastu boobu moom ñépp a nangu woon ne yàlla mooy seen borom fii nag lañ ñëw fii kóllëre googu kóllëre googu nag laay tudd noonu moo tax mu wax ne <coughs> alastu bi rabbukum ndax nekkuma borom seen xaalu ñëw daldi wax ne balla aha kay di wax ne sahid naa ñun de seedi mu ne ngeen wax ñàkk wax ne yowmal qiyaamati bés penc innaa naka ñun kun naa nekkoon nañ an haza ci lii xaafilina mu ne ñuy woy sàggan ëllëg ëllëgee ngeen am lay mooy ne koo xam ne dafa mën a weddi tuuma li wolof wax rek weddi tuuma moom daane ko ci doom rek soo ko daanee ci doom jeex na mooy ne comme ça laykat daal na ko indil loo xam ne ëllëg ëllëgee du fa mën a indi dara lay mooy li ñu doon wax ci gànnaaw rek du fa indi dara loo xam ne daal dafay mën a indi moo tax yàlla kii ak ruux yépp ne leen alastu bi rabbikum loolu lay wax nag ne seede naa leen an taqulu ngeen ñàkk a wax yowmal qiyaam bés penc inna naa an haza xaafilina ñun nekkoon nañ di woy sàggan ci lii aw taqulu mu ne ngeen dal di wax ne innama asraka mu ne eh, bokkaale woon na aba una mu ne bàyyi si bàyyi suñu min xablu mu ne bu njëkk wa naa ñun nekkoon nañ zuriyatan mu ne di njaboot min baadihim mu ne gànnaaw seen ñun daal dañ fekkoon suñu bàyyi rek def lii ñun ñu topp ñu topp ca mu ne afa tuhliku naa ndax da nga ñuy xalak bi maa faala ca la nga xamee loolu la def na mu ne way e, bokkaale yi <clears throat> wa kazalika mu ne naka noonu nu fasilu la ñuy tàqale al ayaati mu ne kaawteef yi wala allahum xel na yarjiuuna mu ñu ne ñuy dal di dellu ci seen kéefar googu wat lu mu ne na nga jàng alayhim ci ñoom yahud na ba yi mu ne xibaar ki nga xam ne ataynaahu mu ne indi nañ ko ayaati naa mu ne kaawteef suñu fansalaxa mu dal di dëñ min haa ci moom mooy mu ngi fas yéene nag wax si nag li nga xam ne moom mooy xissaag balaam balaam ibnu baora balaam ibnu baora dafa nekkoon fóode yahud boo xam ne euh, walliyu la woon bu mag a mag boo xam ne ñeenti junney nit ñoom ñoo doon jàng si ci euh, kiyam bi daaraam ji bu doon waxtaan bu gagoon dafay téen rek lawhul mahfuz foofa lay gàggante ko ñëw wax comme ça tey lu ko taalibe yi laajoon lu mu xamut day seet lawhul mahfuz rek gàggante ko foofu lawhul mahfuz mooy programme bi nga xam ne wala calendrier bi nga xam ne moom la yàlla di jëfee loolu nag am na ñu ko yàlla xamal ñoo xam ne lu fa yàlla nar a jëf danañ ko xam ñoom loolu nag moom demoon na ba àgg foofu xam ne tey programme bu yàlla jëfee war a jëfee moom dana ko xam moo tax moom su demoon ba gàgg ci mbir rek dafay téen rek ci kaw rek jàng lawhul mahfuus ne lii ak lii rek dem tontu te lu mu tontu dara du lii foofu la àggoon ci wilaaya <coughs> waaye nag <coughs> moom lay wax ci mbiram nettali xisa bi ba pare dara ñëw dara ñëw ci kii bi balaa moomu yonti yàlla Muusa dafa am ñum doon xeexaat léegi nag mu nekkoon koo xam ne ku am nangu ñaan la waa dëkk bi daal lu ñu am problème ci ñaan ndax ñu ne dafa xamoon ismullahil azam lu ñu amoon problème ci ñaan rek dañuy ñëw wax ko ne ko ah ñun de nangam rek amoon na mbaamam moo xam ne la doon war mu war mbaam ma bu demee ba fa muy ñaanee bu ñaan rek affaire ba nangu lépp lum ñaan rek mu nangu léegi nag euh, niti buur booba dal di ñëw nag ci euh, kii bi euh, ci bala am moomu ne ko ñun dañ bëggoon nga def intervention suñu diggante ak yonent yàlla Moussa nga ñaanal ko yàlla ah yonent yàlla muusa moom yonent la kii waliyu la mu ne leen loolu duma ko def yonent yàlla Moussa yonent la te man waliyu képp la léegi nag ngeen may ne pour ma ñaanal ko ñu ne ko ñaanal ñaanal ñu rek mu ne leen loolu duma ko def gàntal leen ba sonn ñu ne il faut dem uti pexe <coughs> dem ca buur ba wax ko ko ne ko gis nga bala am daal jabaram moo ko moom mooy ne moom daal jabalama ko yilif lépp lu ko jabaram wax loolu lay def a ah, léegi ñu ñëw jabar ji buur bi oolu ko ger ko xaalis boo xam ne kenn xamul ni mu toll jox ko xaalis moo tax gis nga ñun nit ku la bugg yàqal rek ci sa jege ñaari lay jaar ba yàqal la noonu la def buur bi oolu ko jox ko xaalis bu bëree bëri mu ñëw wax ak jëkkër ji mu ne ko waaye yow ñii li ñuy sàkku ci yow loolu lu simple la rek yow ñaan rek lañ sàkku nga defal defal leen ko yow doon na ci dara defal leen rek jologe koo jologe ba mu ne nii ba mu nangu mu yéeg mbaamam mi dem fa mu doon ñaane mu ne ba mu àggee ba foofa war a ñaan yàlla au lieu kon mu ñaan yàlla Moussa léegi mu wax ne yàlla na yàlla dimbale yonent yàlla Moussa ñu ne ko ah Moussa yow bala am seetal li ngay def yow ñun dañ ne la ñaanal yonent yàlla Moussa lu bon yow nga koy ñaanal ne yàlla gañe mu ne ah xam leen nag làmmiñ yi moo ma ko de làmmiñ yi ki ko moom moo koy conduire ci lu ko neex mooy ne yàlla moo dox gàllankoor ak loola léegi nag bala am def na toor ndax mu ngi bëgg a xëtt sartak ne yàlla du yónni borom ngëneel lu toll ni yónti yàlla Moussa yow ngay dem di gàllankoor lu ko def kooku xam nga ne problème dal na ko de léegi nag ñu ne noonu la def gis làmmiñam yi bocceeku ci biti bay laal ay óomam rek mu ne mu gis ne benn fiil bu ndaw génn na ci moom rek naaw dem may gi nekkoon ci moom maqaama bi nekkoon ci moom rocceeku na rékki nañ ko rek mu far nag nekk ku alaku moom la alxuraan di wax si ci kanam ne euh, mu mel ni xaj boobu nga xam ne dafa bocci làmmiñam rek boo ko yenee lu diis mu ngay yalkat boo ko yenu lu diis mu ngay yalkat dana ko wax si ci kanam mooy li xaj di def noonu rek def noonu noonu noonu la mujj commencé def yàlla boo ci làmmiñ ba nga xam ne làmmiñ bi kii alak ko toroxal ko lu tax ndax dafa songu koo xam ne moom moo ko ëpp daraja fuuf yoon moo ko ëpp martaba moo tax gis nga loo nekk-nekk borom kii bu ñu lay def loo xam ne nekkul noona sakkantiment di ko jëmee ci koo xam ne nit yàlla la bañal bul ca dugg mukk la àdduna nit yàlla koo xam ne yàlla daf ko méngoo boo koy songu rek suuf nga jëm moo xam nga xam ñëw ci lu teel wala mën na la ñàkk ñëw ci lu teel boo ko defee rek ci suuf nga jëm moo tax gis nga Balaam loolu moom moo ko alag kon te gis nga yàlla dafa wax ne man aada li waliyan faqat azantuhu bil harbi wali yëpp yàlla képp ku ko noonoo la wax de man yàlla jël na revanche mooy ne dama koy ne diw sàngam fareel na le léegi yow maag waa ji la yàlla na képp ku léewtoog moom rek danga am problème moo tax képp koo xam ne nit ku baax la soo mënee teral ko loo ko mën a defal lu baax defal ko maandul ci moom boo ko defut kat su dee ne ak wilaaya dëgg la ci moom nga jàmmaarloog moom yàlla def li mu wax mooy ne sama waa ji demal fële demal na leen xam nga nit soo fekkee comme ça bugg ko jëlal paar da ngay def boy defal nii tuuti acca ñëw jàkkaarloog waa mu ne yàlla nag noonu laay def balaam ibnu Baora noonu la def yàlla alak ko léegi nag mu ne nag li fi des fi mu toll nii mooy pexe mooy ne ñaan fi mu toll nii mënatuma ko waaye li fi des mooy pexe mooy ne dangeen di jël seen jigéen ñi futti leen bañ set wecc su ko defee dugal leen ci xare bi su ngeen leen dugalee ci xare bi rek mu ne gaa yi ñoom ci seen bopp danañ mujj ëlbati ku ñëw songu jigéen ñi pexe moomu la mujjee lal nag pour rek esegal mbiram ci léegi nag jigéen ñi dugg ci biir xare bi ñu ne niti muusaay ñoom itam far affaire ba jàpp leen ñu gis jigéen ñi rek acca commencé ànd ak ñoom di séy ak ñoom ci biir xare bi léegi échec far di leen ñuwal nag yàlla ci saa si wàccee fa kii boo xam ne nii euh, kii mbas moo xam ne daal lu baree bari dee ci ñoom ndax mere na leen léegi nag taalibi yontu yàlla Muusaa bi nga xam ne moom mooy kaalib moom moo tëbee fële rek jël xeejam ku amoon doole ku mënoon jam la mu jóg rek fekk ñaari góor ak jigéen ñuy sëy rek mu jam leen xeej ba mu fëll ñoom ñaar fañ tëdd di sëy mu jam leen xeej ba mu fëll rek mu def nii won ko yàlla ne yàlla ñii mooy sa yonent bi gi nii laa leen di def ñuy loolaa waral yàlla wàcc wàññi affaire ba kii dindi mbugal moom leen defoon léegi nag balaam ibnu baora moom noonu nag la yàlla di nettali ci mbiram su heure bi jotee rek après ngeen wax moom la yàlla di nettali ci mbiram lu ci tegeeti seytaan waaw mu ne fa at baaw mu tafal ko as seytaanu seytaan mu ne fa kaana mu ne mu nekk minal xaawiina nekk ci ñi nga xam ne euh, ñu beew mu ne walaw laa si naa loolu moo ci tege hmm. walaw si naa bu ñu sooboon la rafaa naahu mu ne danañ ko yëkkati bihaa ci moom walakinnahu waaye moom axlada mu ne sax na ilal ardi ci suuf wa tabaa mu topp hawaahu mu ne bànneexi bakkanam moom bala am moomu topp bànneexi bakkanam rek mooy la ko gaa yi digal ak la ko jabar jëkk yi mu topp loola ba far mujj alakoo ca te nekkoon wali yàlla boo xam ne ca pey ba laay gàggante ko moo tax gis nga ñu ne toujours bu jot liñ doon wax ci gànnaaw rek mooy nit ki dafa war di ragal toujours bu jot xam ne pexem yàlla comme nañ ko waxee woon yontu yàlla Moussa na ko yàlla waxee bul ma óolu lu mooy ne gis nga sa bopp aljanna te sax soo fa gisee sa bopp xamal ne aadama nga woon aljanna génne nañ ko fa de kon bul wee wóoru pexem yàlla gis nga ko moo tax mu ne fa masaluhu mu dal di ñëw nag moom yàlla misaal nag wone comme ça Balaam ibnu Baora wone misaal ci moom ne nim me mujj mel nag mu ne fa masaluhu misaalam ka masalil kal bi dafa mel ni xaj in tahmil mu ne soo ko yenee yi ci moom wala nga dàq ko yalxas mu ne mu ngay yalkat génne làmmiñam wa rek di yalkat aw tatruku wala nga bàyyi ko mu ne yalxas mu ngay yalkat mooy ne xaj daal foo ko gis bu sonneeg bu sonnut bu defee dara ak bu defut dara mu ngay yalkar rek noonu la misaalee balaam ibnu baora ba ko yàlla alagee ni mujj mel <coughs> kon moo tax gis nga yàqale yàqule weesuwul kenn ku nekk dafa war a ragal loolu mu ne watta euh, lu ci tege zalika zalika mu ne loolu le masalul mi mooy misaal ak allazina ña nga xam ne kazabu mu ne weddi nañ bi ayatina mu ne ci kaawteef suñu faqsusil qasasa na nga dal di nettali nettali bii kon nettali bii na ko nettali yahud yi ñu xam ko ndax kii kat ngand la woon ci ñoom waaye gis nga mujjam fi mu mujj moo tax na ko nettali moo tax gis nga euh, wàllu yàlla yi ak boroom xam-xam yi soo gisee ñuy jëfandikoo xissa gis nga lii la yàlla digal yonti yàlla muhammad ne ko xissa bii nag nettali ko gaay moo tax nettali xissa dafa am solo mooy borom ara borom kii xam-xam yi di wax ne alqisas jundun min jundillahi xare la ci xare yàlla yi mu ne laallahum xel na ñoom ne mu ñu ñuy waaru boo leen nettalee daal lii xam ne seen waa ji ngande gim doonoon ak fi mujj ah danañ ci waaroo de mu ne saa abon na masalan misaal masalu xawmi mu ne misaal ak aw nit na ña nga xam ne kazabu mu ne weddinañ bi ayatina mu ne ci kawteef suñu wa anfusahum te bopp seen kaanoo nekkoon na yëslimuuna di tooñ mooy di tooñ seen bopp man yahdillaahu ku yàlla jubal fa huwa muhtadin moom ku jub wa man yudlil waaye képp kum sànk fa ka ñooñu le humul xaasiruuna ñooy ñooñ perte wala xat zara naa mu ne bàyyi nañ wala bind nañ li jahannama mu ne neel jahannama kasiiran lu bari minal jinne mu ne ci jinne wal insi mu ne ak doom aadama lahum mu ne ñeel na leen xuluubun mu ne ay xol laa yafqahuuna mu ne duñ dégg bihaa ci moom wala hum ñeel na leen ayunun mu ne ay bët laa yubsiruuna mu ne duñ gis wala hum ñeel na leen azaan mu ne ay nopp laa yasmaoona bihaa mu ne duñ ca déggee muy misaal comme ñi nga xamee ne ñoom ñooy yahuud yi euh, tëx gi nga xam ne lañ tëx ci alquran waar yim leen di waar ak yooyu yépp ñoom duñ dégg mu ne wulaayka ñooñu lekkal al aami mu ne dañoo mel ni ay juri kër bal hum bal hum li am sax ñoom àddalu ñoom ñoo gën a euh, réer juri kër wulaayka ñooñu le humul xaafiluuna ñoom ñooy ñu sàggan ñi moo tax gis nga doomu aadama moom ay étape lay nekk léeléeg mu dem dana nekk étape boo xam ne mun na gën sax malaaka dana dem étape boo xam ne daay mel ni jur yi comme ni ko misaalee waaye dana dem ba étape boo xam ne jur sax a koy gën te boo seetloo ci suñ jamono jii lépp feeñ na ne dàng doomu aadama léeg danga koy fekk ci situation yoo xam ne da nga xam ne kii jëfi mala dëgg lay def rey bakkan def loo xam ne tey suñ la waxee doomu aadama dana def li nga ne déedéet kon doomu aadama ci étape yooyu laay dund dana def nekk boroom ngëneel ba nga xam ne mel ni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga ne kenn du ko gën lante même ci seen bopp sax loolu la borom riyaad nettali ne ulaayika ñooñu le hum sarul bariyati ñooy gën ji euh, kii yées ci mbindeef mu ne al insaanu doomu aadama saalihun lu xeween la li kulli seyin ci mbir mu ne wa saalihun li an yakuna malakan mooy doom aadama yéwén na mu nekk malaaka wa saalihun li an yakuna saytaanan yéwén na itam mu nekk seytaane wa saalihun li an yakuna sab'an yéwén na itam mu nekk comme ndong ment mooy li gaa yi def ndong ment yi def mu def ko mooy faddaateeg gaañaateeg reyaateeg yooyu yépp mu far di ko def mu ne wa saalihun li an ba bahimatun mën na denk na ba nekk sax comme ça bàyyi ma yàlla léegi nag mu ngi ñëw ci mbiram asmailaahil husna kon génn na ci mbiram banu israil léegi mu ngi ñëw nag dugg ci mbiram asmaullaahil husna mu ne walillaahi ñeel na yàlla al asmaul husna mu ne tur yi rafet yi ñu ne mooy juróom-ñeent fukki tur yi ak juróom-ñeent wala téeméeri tur la ñu ne juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeent mu ci ci alquran waaye nag benn bi ñu ngi ko mbëmbëstan ci biir nëbb ko comme ni nga xamee ne leelatul xadr ñu ngi ko mbëmbëstan ci biir weeru koor mu ngi ciy daw loolu tax leelatul xadar ñi ngi koy dàkk fii ñi ngi koy dàkk fële ñi ngi koy dàkk fële ndax dafay tur la ñu ne ci biir weeru koor am ci borom xam-xam yi ñu ku mel ni ibnu abbas mu ne moom dafa tënku ci ñaar fukkeeli fan ba ak juróom-ñaar waaye am na ci yeneen borom xam-xam yi wax ne dafay tourner même tourné wul rek ci biir weeri waaye même ci at mi yëpp day tourné rek nga dem ba foo xam ne danga fekk ne leelatul xadar ne na jël te loolu mu ne aarifu nay billaahi ñoom dañ koy dund léeg ci seen xaal toll foo xam ne dañuy xam ne leelatul xadar ñëw na ci ñoom kon mu ne yàlla subhaanahu wa taala ñu ne ñetti junney tur la am moom la borom riyaad tafsir wax ñetti junney tur mu ne junney tur yi mu ne malaaka yi ñoom ñoo ko xam ak yonent yi wala junney tur yi mu ne malaaka yi ñoom ñoo ko xam yeneen junne bi mu ne yonent yi ñoom ñoo ko xam beneen junne bi ci des nag mu ne ñetti téeméer yi mu nga ca tawraat ñetti téeméer yële ñu nga ci injiil ñetti téeméer yële ñu nga ca zabuur mu des téeméer mu ne téeméer boobu nag moom lañ jël mbëmbëstan ko ci biir alquran moo tax boo demee asmaul husna yépp danga ko fekk ci alquran mu ne ba mu des nag ñu ne ismullahil azam moom la yàlla jël mbëmbëstan ko nag ci biir moo tax ñu ne loolu la yàlla jëlaat nag defaat ko mu ne wàlliyu mbëmbëstan ko ci biir mbindeef yi ndax lu tax mu ne dafa bëgg nit ñi am farlu ku nekk xam na ne wàlliyu lu am la mën nga ko doon sax te doo ko xam waaye soo ko xamoon mun na laa jural yàccaaral xam ne yow waliyu yàlla nga mun na laa jural comme saa wa yàccaaral moo tax waliyu mën na nekk yu nit ña xam ne waliyu piir la te moom xamut ko sax xamut ci dara moo tax mu ne walillaahi ñeel na yàlla asmaul husna mu ne tur yi rafet ya fadonhu mu ne na ngeen ko ci woo wala na ngeen ko ci jaamu udon ci alquran da nga ko fekk foo xam ne daay firi jaamu waaye da ko fekk muy firi comme ça ñaan leen ko wala oo leen ko moo tax mu ne fadon biha na ngeen ko ci ñaanee moo tax boroom xam-xam yi wax ne asmaawulaayil husna yooyu képp ku ko mokkal rek dem aljana ñii ne ci ñaari façon képp ku ko mokkal dugg aljana ñii ne comme ça asmaawulaayil husna allahu rahmaanu rahimu ba tur jeex yépp képp ku ko mokkalee noonu daal dugg aljana am na ñuy wax ci boroom xam-xam yi ne loolu lañ ci namm ñeneen ñi ne déedéet nammuñ ci loolu de liñ ci namm mooy ne asmaawulaayil husnaa yi dafa am ci yoo xam ne ay sifa lañ melokaan la yoo xam ne yàlla daf ko meloo yow nag dañ bëgg nga jël melokaan yooyu meloo ko mooy ne yàlla ku am yërmaande la te yàlla moo wax ne alxalqu ayaalullaahi mbindeef yi njaboot ak yàlla la te ku am njaboot li nga bëgg mooy ñu yërëmal la ko gis ngeen nit tey soo amee doom sàkkantumaa jigéen ñi ku laal sa doom nga tëb dal suma doom ji kay mayuma ci kenn nangam mayuma ci kenn nangam gis nga ko mu ne yàlla itam nag alxalqu ayaalullaahi njabooti yàlla ci waxin daal mooy mbindeefam bëgg na ku ci nekk daal nga yërëmal ko ko moom loolu la bëgg kon mu ne nga jël loolu jëfandikoo yàlla muñkat la nga jël muñ jëfandikoo ko ak diggante sa diggante ak mbindeef yi liñ la yàlla Muhammad bi mu nekkee Màkka la fa gënoon a ëpp fas biir sa sabran jamiilan muñal muñ ko rafet rek lépp luñ ko def def nañ ko lu ne ca biir Makka waaye muñal rek lañ ko sant nga jël loolu nga xam ne mooy maqaam ak muñ googu nga muñ ko waaye bañ a jël li nga xam ne mooy turam bi nga xam ne sifa la muy mu mooy fayukat bi yàlla tuddi na boppam muntaqim de waaye boobu bëgguñ nga jël ko mooy ne nekk fay wante kat lu leen nit ne nii nga fay wante toppante ko moom ba mu saf-saf déedéet moo tax dafa am yoo xam ne danga ko war a jël comme ça meloo ko yi nga xam ne mooy yërmandeeg yërëm bindeef yeeg yooyu nga jël kii ko loolu la ñu wax ne ku ko mokkal loolu lañuy wax ne ku ko mokkal dugg nga aljana ñeneen ñi waxee ko ca yax ba daal ne soo mokkalee tur yi noonu rek léegi mu continuer di wax fuñ ci fu ci tegeeti sax wazaruhu mu ne wazaruhu na ngeen ko bàyyi allazina ña nga xam na ngeen bàyyi allazina ñaa ña nga xam ne yulhiduuna ñoom ñooy jëngal fii asmaa yi mu ne ci turam yi bi dafa jël hmm? léegi mu ne nanga bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy jéngal mu ne ci turam yi sa yujzaw na mu ne danañ leen fay ci àllaaxira maa kaanu lañ nekkoon yaamaluuna di ko jëf wa mi man xalaq naa ak ñi nga xam ne bind nañ leen ummatan ñuy xeet yax du yahduuna ñuy jubal bil xaq ci dëgg wa bihi ci moom di ya'diluuna mu ne ñuy maandu ñoom xeeti yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonentu wax sallallahu alayhi wa sallam ci hadis ne laa tazaalu mu ne du deñ taa'ifatun mu ne aw kuréel min ummati suma xeet zahiri na ñuy feeñ alal xaq ci dëgg laaye duruhum mu ne du leen lor man xasalahum koo xam ne toroxal na leen xatta yatiya amrullaahi ba mbiram yàlla dal di ñëw wahum wahum kazalika ñoom ñoon la ñuy mel di na ñeel ña nga xam ne kasa kazabu mu ne weddi bi ayatina ci kawteef suñu sanastadrijuhum danañ leen jàpp wala danañ leen jey min hay suu ci fa nga xamee ne laa ya'lamuuna duñ xam ñi nga xam ne dañ weddi suñ kaawteef yi mooy dañ leen jey rek moo tax gis nga yàlla toujours bu jot noonu lay def xam nga doomu aadama képp koo xam ne moom euh, kii na la képp koo xam ne jéppi na la wala bëgg na laa lor dafay yàkkamti sa mbir waaye nag wuuteeg subhaanahu wa taala moom doyloo na loolu yëpp mooy ne doomu aadama su la nit tooñee balaa muy génn fële danga koy dem kali ko fële ne pour ma jot ko pour bum la raw daal xaaral ma dem waafoo ko fële pour bum ma raw waaye yàlla jomb na ci moom loolu ndax moom mbindeef mënul koo raw moo tax amul ci soxla di la yàkkamti moo tax tey soo gisee mban mbon tasaaroo yëpp loolu moo ko waral mooy ne nit ñi duñ xam ku yàlla jëppi duñ xam koo xam ne yàlla daf la jay ñaar yooyu duñ ci xam dara tey nit mën yàlla mën na ko jox mboolem privilège yi fekk na yàlla daf ko jéppi daf ko jéppi ba nga xam ne daal lépp lum ko ñaan sax daf ko koy gaaw a jox ne ko jëlal rek moo tax ñu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam ba muy reñaan dafa ñëw euh, am ci asamaan boo xam ne dajee fa ak ñaari malaaka ñu ne asamaan yi ñeenteel la mu dajee fa ak ñaari malaaka bii malaaka mu ne ñu ngi ko yebal mission bii ñu ngi ko yebal mission mu ne ko waaye yow ñoom ñaar ñu laajante ñu ne waaye yow lan moo nekk sa mission mu ne ko man de yàlla daf ma yebal ci benn yahud boo xam ne daal ay soxlaam yëpp yàlla fajal na ko ko ba mu des benn mooy ne dafa feebar nekk ci tiisi ndee mooy bugg dee waaye jën moo nekk ci xelam yàlla nag ne ma demal jën boobu mu am soxla demal jël ko ci géej sàngam màng ko yóbbu ko ci géej sàngam ñu napp ko yóbbul ko ko mu mën koo lekk ma wàccoog moom moo gis nga yàlla li muy def xam nga ni kooku su fekkoon daraja ci yàlla rek mooy loolu kon kooku moo am daraja waaye gis nga yàlla toppatoo na yépp ba mu mat sëkk mu jébbal ko ko mu ne pour ma wàccoog yow rek keneen ka laaj moroom ka mu ne ko waaye yow luy sa mission mu ne ko man nag lii suma mission mooy dafa am julit boo xam ne dafa feebar ba nekk ci tiisindee léegi nag dafa am lekk boo xam ne daal dafa nekkoon ci xelam ñu toggal ko ko ba desul dara lu mu lekk ko yàlla ne ma demal nga xapp ndax problème am yëpp comme sa problème am yëpp jéggal naa ko ko ba mu des léegi fi mu toll nii loolu laa nar a fayoo ko ante ak moom mu jeex takk bu ñëwee yow man xiyaam ma wàccoog moom jeex na directement aljana rek moo tax ci biiri lor nga la nga ca mooy ne moom loolu xelam a ngi ci ba mu ne toggal leen ma ko yàlla yónni malaakam mi ñu këpp ko man dafa toog rek gis affaire bi këpp mu méttul lu ko kii fekk na loola la yàlla dese desale woon ak moom mooy ne daal tey lii la yàlla desante ak moom pour xañlante ko ak moom léegi nag xañ na ko ko jeex na léegi li des ak moom nag mooy mu ñëw yow man xiyaam nag mu teraangal ko moo tax jaam ngi nekk fii ci àdduna lu ne yàlla xañ na la ko lu ne yàlla kii na la ko waaye soo xamoon da nga wax alhamdulilahi rabbil alamin moo tax tey si suñ jamono ji nit yàlla dana ko nattoo ñàkk day mujj jéppi boppam ba pare kii foog ne moom tekkiwul dara ci société bi fekk na yow bu xamoon xam ne borom ngëneel lu rëy rëy rëy yàlla danaay defal nit ki noonu ci am-am jay la dana koy def nag def la fekk na euh, def lay yokk rek comme ça xéwal loo jàmmoo yàlla rek waaye dana koy def fekk na jay la rek ci la jublu loolu nag la wax mu ne li la lazina ña nga xam ne kazabu mu ne weddi nañ bi ayaatillaahi mu ne ci kaawtee fi yàlla yi sanastardijuhum danañ leen jay min haysu foo xamee ne laa yaalamuuna mu ne ne duñ xam naa leen jàpp de foo xam ne hee danañ foog ne mbir mi fekk na yow maa ko doon sóor bu baax wa umlii lahum dana leen nëgandekul inna kay dii naka pexe sama mattinu mu ne lu tar la mu ne awalam yatafakkaru ndax xelaatuñ maa bi saahibihim li ci seen waa min jinnatin mu ne ci euh, ndof mooy ne dem nañ yontu sallallahu alayhi wa sallam di ko jiiñ lu nekk ne dafa dof ak dafa nangam ak lépp lu ñu wax rek alquran moom mooy ñëw moom jëlal ko ki yontu yàlla nuux ñoom yontu yooyu yëpp bañ leen ŋàññee ñoom ñoo jëlal seen bopp ki waaye yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom lépp luñ ko wax lu kii rek yàlla moom mooy ñëw dàq ko ñu ne ko dof nga mu ne du dof ñu ne ko njabarkat la mu ñëw leen du njabarkat lu ñu wax rek moom moo koy teggil tuuma dem na ba boobu ko bàyyi taxam euh, euh, ŋàññe ŋàññ yu métti ya moom ko am yar la ko am teggin la yàlla wàccee tabbat yada ñëw wax yonent yàlla Muhammad ne duma la wax xul moo tax ñu ne saar boobu saar yii yëpp am toftalantoo nekk xul ba mu nekk ci moom amul xul ñu ne lu tax ndax bu yàlla waxoon yonent bi ne ko saagal sa baay wala ŋàññil sa baay loolu dafay niru comme ça daal lu digal nit ko lu ñaaw daal ci mbokkam moo tax waxut ko loolu moom dafa teggi fële xul rek ne ko tabbat yada abi lahabin commencé toskare ñeel na sa baay ji man maa koy xas yow nekkoo ci dara gis nga ko <coughs> lu ci tegeeti waaw mu ne awalam yatafakkaru xanaa xelaatuñ ñu xam maa bi saahibihim li nekk ci seen waa ji moom yu yonent yàlla muhammad min jinnatin nekkul ci seen waa ji min jinnatin mu ne ci ndof in hum mu ne moo ci tege de in hum in hum mu ne naka ñoom illaa nazirun mu ne waaraat xuppekat la xuppekat lañ mu biinun boo xam ne bu biir la awalam yen zuru ndax xooluñ fi malakuuti samaawaati mu ne ci nguur ak asamaan wal ardi mu ne ak suuf wa maa xalaqallaahu ak li yàlla bind min say in wa maa xalaqallaahu yàlla bindul min sey ci mbir waan asa mu ne xëj na an yakuuna mu nekk xad iqtaraba mu ne jege na ajaluhum mu ne seen dëxal xëy na ñoom seen dëxal dafa jege mooy seen ajal dafa jege fa bi ay hadisin mu ne ban waxtaan wala ban kaawteef mooy alquran ji baadahu gànnaawam yuminuuna mu ne la ñuy gën wa man yu laa képp koo xam ne yàlla sànk na ko fala haadiya lahu mu ne du am ku ko jubal mu ne wa nazaruhum ñu bàyyi leen fi tuxyaanihim mu ne ci seen cànkutéef wala ci seen ak bew ya yamahuuna mu ne ñuy déngi déngi mu ne yasaluunaka dañ lay laaj ñoom waa Makka ani saati mu ne ci bés penc dañ la koy laaj yow yonentu yàlla Muhammad ayaana mursaha ñëwam kañ la xul mu ne wax leen innama ilmuha mu ne xam-xamam daal inda bii mu ne ci borom sama la laa yajilluha mu ne du ko feeñal li waqtiha ci waxtoom illa huwa nderee moom moom bés penc ci dara lu ko feeñal lu mooy yàlla rek moo tax yàlla yonent dégagé na ci responsabilité complètement ne moom xamul ko léegi nag borom xam-xam yi ne ñii ne xam na ko bokk na ci yi nga xam ne yàlla daf ko sàttaloon ne ko bu ko xamle mooy yonentu ba mu rañaanee dem jëli julli yàlla daf ko fa jox xam-xam yoo xam ne yii nee na ko xamal ko mbindeef yi xaas ci ñoom ñii nee na ko xamal ko ku la soob yii mu ne ko bul ko xamal kenn maa ak yow rek boroom xam-xam yéen nag foofu la wax ne euh, yowmal qiyaam yonentu xam na ko sax waaye dafa amul droit wax ko ndax dafa sartaloon ak yàlla ne ko bul ko wax moo tax bañ ko ko laajee rek Euh, dafa dégager responsable itam ne xam-xamam kat mu nga ci yàlla inda bii mu ne ci borom sama laay jilluhaa mu ne du ko feeñal li waxtuhaa mu ne ci waxtoom illaa huwa nderee moom mu ne saqulat màgg na fi samawaati mu ne diis na fi samawaati ci asamaan yi wala ardi mu ne ak suuf laa taatikum mu ne du leen dikkal illaa baxtata nderee ci mbé ci mbetteel mu ne yowmal qiyaam boobu ñuy wax du leen ñëwal lu moy ci mbetteel rek yasaluunaka dañ laay laaj ka annaka xafiyun yaa ngi mel ni koo xam ne peeg nga ko an haa ci moom xul i waxal ne innama ilmuhaa naka xam-xamam daal indallaahi mu nga fa yàlla walakin na waaye nag ak sara naase la gën a bëri ci nit ñi laa yaalamuuna mu ne duñ xam la gën a bëri ci nit ñi daal xamuñ moo tax gis nga mu ne alqiyaamatu moom borom riyaat mooy wax loolu mu ne alqiyaamatu salaasun yowmal qiyaam mu ne ñett la mawtul insaan wa huwa hiya qiyaamatul suxra dee ak nit ki moom mooy yoomal bu ndaw bi man maata faqad qaamat qiyaamatuhu loolu yeneen ko wax mu ne képp koo xam ne dee na rek àllaaxiraam taxaw na mu ne wal musta wal wusta bi digg doomu mawtu jameel xalaayiqi bés bi nga xam ne la ñuy toog mboolem mbindeef yépp fàddu dee kooku itam moom mooy bu digg doomu bi mu ne wal kubra hasrul as as as ajjaad ajjisaat ila mahsari mu ne bu mag ba nag mooy fang ba ñuy fang mbindeef yépp jëmale leen yowmal qiyaam boobu mooy yowmal kii bu mag bi moo tax yowmal qiyaam gaa yaa ngi ciy wax di wax waaye daal yàlla daal li mu wax yonent yàlla Muhammad ne ko wax leen ne xawma ma ko xaw ko kenn du wax ne yowmal qiyaam bés sàngam la wala bés nàngam la mukk mu ne xul waxal ne laa am li ko mu ne du ma moom li si bakkan sama bopp sama naf an mu ne njëriñ wala daran mu ne du lor illaa ndere maasa allahu li nga xam ne soob na yàlla walaw kuntu su fekkoon ne nekkoon naa alamul xayba maay xam fàddu lastaksartu mu ne danaa bëril minal xayri mu ne ci yiw wama masa ni suu kon itam ak tat-tat du ma laal wala ak lor du ñëw laal ma waaw léegi nag boroom xam-xam yi ne lu tax mu waxee noonu mu ne ko mu wax ne law kuntu alamul xayba su ma xamoon lu fàddu lastaksartu minal xayri danaa baril kon def lu yiw wa maa masani waaye itam tat tat du laal wala lor-lor ni ko noon du laal ñu ne soo xoolee wax ji ni mu demee rek di nga xam ne waxi toroxlu la ndax yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nañ ne borom maqaamu bu foor la waaye nag ak tar-tar ñu ngi ko doon laal ndaxte tey doomam bu judd rek gaañu ba gaa yi dañ ko mujjoon wax ne kii mooy ab tar ci suuratu kii kawsara ne mooy abtar abtar mooy koo xam daal askanam dafa dog rek mooy narta am lu mu fi bàyyi daal loolu mooy abtar kon gis nga euh, lor-lor daf ko doon laal ni nga xamee noonu la nit ñi di amee problème ci seen kër yi am na ko problème ba dem ca jàkka ja bàyyi fa soxnaam yi dem ca jàkka ja kon lor-lor yooyu yëpp daf ko doon laal moo tax mu wax ne lay la lastaksartu min al xayri wama masani suu kon lor-lor du ma laal kon loolu la boroom xam-xam yi wax ne loolu su ko waxee ak toroxlu rek moo tax mu wax ko mu ne in ana mu ne waaye nag man illa nazirun man waare waarekat la mooy ci kéeféer sii di leen waar wa basiri may bégal li xaw min ñaal nit yuminuuna ñoo xam ne mu ne gëm nañ di leen bégal aljanna wallazi mooy ki nga xam ne xalakukum moo leen bind min nafsin waahidatin ci benn bakkan te mooy yonent yàlla aadama yàlla ne moo leen bind ci benn bakkan mooy yonent yàlla aadama yàlla bind na ko mu ko bindee muy jëmm joo xam ne comme ça jëmm la juñ tëral nii rek amagul roxo léegi nag mu bind roxo dugal ca ñu ne ba mu ko bindee noona yàlla moo tax moo ne aadama moom moo ko bind ak loxoom léegi nag seytaane ñëw moom gis ko ne ha mbindeef mii de xaw ma lan la waaye ni ma ko gisee nii luy lekki lay doon ëllëg de ñu ne mu xaaxtandeku tafli ko ñu ne bi mu ko taflee mu tollook jumbax bi mu ne ñu jël yàlla wax jibril ne ko demal ngeen keef loolu dindi ko ndax seytaane tufli ko ñu jël keef loola dindi ko sànni biñ ko dindee sànni ñu ne léegi xam nga keefit boobu ñu dindi sànni lor ak iblisa nga ca waaye itam jeexintal li bañ liñ xoos ci aadama sànni ko mu nga ca ñu ne loolu ci lañ bind xaj moo tax xaj dafa làmboo ay yu foor làmboo yu yées ñaari maqaama yi la boolante ndax dafa jël ci aadama ba pare jël ci iblis mooy tafli gi iblis tafli loolu daf ci jël waaye itam doomu aadama yàlla wax ne wala xad karam naa bani aadama maa teral doomu aadama waxaat feneen itam ci hadis ne maa bind aadama ci suma loxo lu tedd li kon xam nga kooku lu tedd la moo tax ñu ne am na yum jël ci iblis mooy comme ça ñàkk a nelaw moo tax xaj balaa ngay gis muy nelaw rek ci li ci gën a bari mooy fajar wala bëccëg waaye xaj moo tax tey foo dégg ci dëkk bukkee nga ca àll ba di sab xaj yaa ngi toll fii ñu ngi jàkkaarloo moom wala ñu ngi koy dégg ñu ngi koy gis ñu loolu ci iblis la ko jëlee su ko defee fii la xaj yi di toog di bow di bow waaye saa yoo toogee daal gis xaj yi ne texees na la wóor ne bukki bi dugg na ci biir dëkk bi ndax lu tax ñoom xam nañ loolu ñu ne ci moom la ko jëlee mooy ñàkk a nelaw googu moo tax comme ça tey xaj dañuy wax ne bañ bañ nañ ku ko yar ci kër lu mooy ci yii mooy ku ko def gardien mën na ndax luy cosaanam mooy yonent yàlla nuu ba ko yàlla digalee ne ko ettal sa gaal bi daf ko digaloon ne ko euh, euh, ba mu demee bay ett gaal gi gars yi dañ ñëw rek di dem duus ci gaal gi di ci dem duus rek léegi nag yàlla ne ko kon jëlal kii jëlal xaj nga def ko gardien moo waral ba léegi ci diine ñu dagal loolu mooy su fekkee am nga ay gàtt wala sa kër bu nga faa yar xaj mu nekk gardien loolu jaayis waaye su dul loolu rek xaraam su ko defee yonti yàlla nu noonu la def jël xaj ba def ko foofu képp ku jëmati ca gaal ga rek xaj bi boobu ko rek mu xam ne acca acca demal noonu lañ def ba gis nga mujjante maa fi gaa yi mujj ak moom mooy di dem duus ci gaal gi ba mu fees del léegi nag bi gaal gi feesee euh, ñu ne benn xale daal moo dem ca gaal ga di dem duusi rek far daanu bam daanoo moo tax loolu li muy kii mooy ne yàlla sant yonent yàlla nuux mu muñ ndax yonent yàlla nuux moom la yàlla yónni lu mat junney at yu manqué juróom fukki at bés bu ne ni ko nitam yi di def mooy dañ koy dóor a dóor a dóor a ba mu xëm ñu jël ko sànni ca mbalit ma su ëllëgee ñoom li ñu doon def mooy dangay ñëw wax sa doom boo demee ba màgget ñëw xëcc sa doom ne gis nga góor gii màgget mi ku bon a ngi nii ngay gis def ko ci sa xel mi daal xam ne kii ku bona a bon la sa njaboot itam ni ma la def nii nang leen ko def gis nga noonu lañ nekk di donnante moo lay woon yonti yàlla Muhammad euh, kii yonti yàlla Nuux ni guddee woon fan dañ ko doon awlante ñoom xeet yi da ngay am xam ne day dem ba mage ñëw bàttali ko doom ji ku bona ngi nii na ko xam bu baax moom itam su demee ba màgget bugg a ñëw ci doom ji waxu ko ne ko mu ngi nii naa la ko dénk daal noonu lañ doon def moo tax yonti yàlla Nuux dem na ba muñam googu ci la dem nag ba yàlla won ko ne ko ñii duñ gëm mu ñaan nag ñaanam gu siiw ga rabbi laa tazar alal ardi minal kaafiriina dayyaaran yàlla ñii bu leen desal ci kaw suuf wax dëgg yàlla am na droit pour ñaan xoolal rek lu ma junnee at ak nangam mu nekk ko ci xeetam bi di waar di kii ak liñ ko ciy tegal mooy dóor ko ba mu xëm su doon sama maas gii soo leen dóoree ba mu xëm beneen <laughs> bés doo doo ñëwaat di waar nit ñi waaye bés buñ ko defee ca suba saa mu dellusiwaat ñëw wax ne yàlla mooy ñu ne waaye dëgg-dëgg góor gi moo ñàkk jom démb liñ la def fii ba watal la sànni fii nga ñëwaatati tey nii noonu gis nga moo tax yontu yàlla nu waaye la ko yàlla fayee ngay seet nag tey bañ demee ba xam ne gaal gi fees na ak ay ay dem duus léegi nag xale ba daanu ci yàlla dafa indi benn mbas moo xam ne dafa dal gaa yi picc rekk léegi nag bañ demee ba picc ya bëri xale bi daanu foofu affaire ba seet wecc wecc wër kak a ah, mu ñëw ñu ne ko waa yow sa picc yi ana mu mu ne picc yi de wër nañ ca pax ma daal laa daanu dem duus daal moom la moom la fu laal rek mu wër loolu la mu set wecc a ah, gars yi yëg ko commencé ñoom itam ku ñëw raayoo wër kak ku ñëw raayoo wër kak ñu commencé ko awlante dëkk ba yëpp ruuxle ñu ñëw mujj fomp gaal ga ba mu set wecc wecc wecc buur ba yëg affaire ba ne gars yi ñu ngay xëcco kii ba moom itam jot na ci jàngat mu ne nañ arrêté affaire bi léegi na buur ñëw buur ñëw ak délégation ñoom itam ñëw commencé di raxas du raayu bu mujjanteel maa gaal ga dafa set wecc ñu ne loolu lim lay jàngal mooy ne mbindeef yi luñ la mun munti def ci lu ñaawteef ak bon muñal rek ëllëg ëllëgee liñ la def noonu ñoom ñoo koy raxasaat ba mu set wecc comme ni nga xamee ne gaal googu nañ ñëwoon di ca dem duus ñoom ñoo ko raxasaat ba mu set wecc làmmiñ yi liñ la doon wax ci lu bon ëllëg ëllëgee ñoom la yàlla di jël toflit yooyu wan nañ ko de waaye dañuy jëlaat encore seen làmmiñ yooyu di la waxaat lu baax kon su ko defee moo tax ñu dénk la ne na nga muñ waaw ah. ah, waaw fan la saxati hmm, waaw allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatihi lima uxliq walxaatimi lima sabaqa naasir alxaq bilxaqi walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaari alazim ngi ñaan yàlla mbooleem lu ci rëcc rëcc yàlla nañu ko yàlla jéggal waaye yàlla na yàlla may ñu barkeeb alquran waaye may ñu ñu ko yàlla defal mbooleem luy xéwal lu nekk ci déglu euh, téere bi yàlla bi yàlla na ñu ko yàlla jox yàlla defal ñu mucc goo xam ne dinañ mucc àdduna ak àllaaxira képp ku fi nekk lépp lu la jot ci naqar yàlla na ko yàlla saafaral ci barke téere bi yàlla bi waaye lépp luñ di sàkk muy càkku téefam xam ne su ko jotee muy njëriñ ci moom njëriñ julli ñi yàlla na ko ko yàlla jotal mu ngi ñaan yàlla béréb bii yàlla na ci yàlla def barke lépp lu fi waaye ñaan rek yàlla na ko yàlla defal waaye ku fi ñëw indaale ko soxla nu soxla ba mënti toll yàlla na la ko yàlla fajal ci barke alquran barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad